ñoo leen di may seen émission. boutique solution ñoo leen di may seen émission Taku Show. mbokk yi téléspectateurs yi ak internautes yi dellu siwaat nañ ci kàttanu yàlla ci seen télévision Walfadjri ak seen site bi lee di solution TV fas yéen ànd ak yéen dirub 1 heure 30 minutes di ànd ak yéen ci seen magasin bi lee di Taku Show Taku Show nag tey ci talaata ji nañ ko ubbee seen rubrique lu ay di njàmbat Omar Bun Xatab Gueye seq waxtaan ak Cheikh Tidiane ñas Cheikh Tidiane Niass na bokk ci MODAP di mouvement doomu daara dinañu seq ak moom waxtaan buñ ca noppee actualité du jour El Hadj Modou Diouf mooy ki koy amal wutu fi ma jigéen Diop Dieng Sall la ñu koy nuyu waaye nag dinañ ci teg victime ju net son bi Jóob mooy ki koy amal ñu ndar képp bi la jotaay ak nepad musical su Kambay daane dikk gi ganam Omar Bun Xatab Gueye maa ngi lay nuyu di la ziar. baax ajaratu di la nuyu di la ziar baax ci koor gi. di ñaanal jàmm amiin ñu di ñaanal euh, sa jàmm moom tamit di ko nuyu bu baax. Euh, mhm. taalibe sëñ Sidi mu sëriñ Abdoulahad Mbacke. Mhm. di nuyu El Hadj Modou Diouf ah. Euh, actualité du jour ah. di ko nuyu ba Modou chroniqueur ah. <laughs> moom danoo war je euh, décret bi keneen quoi xëcc mu Modou Pia ah. <laughs> di ko ziar bu baax di ko nuyu bu baax a baax démb émission bi ñu def ah, sax ñu bari neex na ñu bari kon ah, ñu ngi noonu kon di gërëm ñëpp di leen sant di nuyu bu baax nag sama sëriñ ndax sama doomu sëriñ la sëñ siidi waaw moom ci këram la yaroo di seen Cheikh Tidiane xalifa Niass ñu koy nuyu bu baax a baax di ko ziar nag mu ñëw fi pour Modap mais mu ñëw fi tamit ci actualité bu ko concerné ci diggante ak Ousmane Noël Dieng ca Kaolack euh, dinañ ci dellusiwaat bu baax di nuyu waa Régie yëpp ñoom toog ak Ablaye yëpp di jaar Assane euh, Souka ak euh, ñoom Boubacar yëpp ñu ngi leen nuyu di nuyu seen Sidi Saïbou Niass ñoom Cheikh Sambaka ca Géejawaay kon ci kanam rek incha allah ñu dalal Serigne Cheikh Tidiane. ayca ci kanam tuuti lay doon El Hadj Modou ñu ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi fay Adja di nuyu El Hadj Sane Ndiongo Omar Ibn Khattab di nuyu sëñ bi. di nuyu waa région ñoom Toba ak Ablaye di nuyu téléspectateurs yi ñu seetaan di wax ne man moom xam naa ne dinaa toog ci chaise fauteuil chaise yaakaar naa bee moom ma dese ak bii boo mu dinaa <laughs> dinaa toog ci ci chaise yëpp na ma bàyyi ci région bi rek waaw di wax tey maa ñëw fas yéene wutu match ci actualité ñu gis na nag euh, le président élu Bassirou Diomaye Faye démb génn na def sa première sortie ci média yi en tant que président élu wax na wax yu bari nag dinañ ñëw andi ko ci taabal ñuy jàngat ko ci contour yeeg euh, critique yi ci suqee après soqee après après wax bi dinañ ci ñëw léegi léegi ñu développé incha allah. ci kanam tuuti lay doon El Hadj maa ngi lay nuyu taalibe sëñ Sidi xaritu sëñ Sidi ziar naa la. Adja ñu ngi lay fay di am mbégte ak kontaan ci yow di dem ba Touba nuyu xalifa général des Mourides sëñ Mountakha di ko ñaanal mu yàgg bi tànd ak wér. waaye di nuyu di ziyaar sunu sëriñ sunu xarit sëriñ Sidi sëriñ Abdou Lahad Mbacke ñu koy ñaanal Mbacke mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ko ziyaar bu wér di nuyu sëriñ xaadim ne ca kër ga di nuyu njaboot ga yëpp di leen ñaanal jàmm nuyu bu baax sëriñ Abdou Karim Mbacke borom ak Karim wax laa nuyu mhm. kilifa diine yeewoo ci biir réew yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di ñaanal jàmm amiin yaa rab nuyu nañ Ba Fall kooku sunu maman la waaye di nuyu mhm. monsieur Lo kooku sunu tonton la ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal jàmm di nuyu bu baax Umar bun Xataab macha allah di am ci moom mbégte kontante waaye ñu ngi nuyu bu baax sëñ bi ñas sëñ Cheikh euh, Tidiane ñas mhm. ñu ngi lay nuyu di la ziar di la dalal ci plateau bi di am mbégte ak bànneex di nuyu bu baax alaaji Modou Diouf macha allah xam nga Modou naanaan la mën naa ma mhm. ko mën a siim waaw xam nga xam fi mu toll nii moom ci lim nekk moo ñu man <laughs> xam nga ah ñu wàccee ci suuf mënuñu ci li muy def dara bu yéegee ci kaw li ñuy def man na ko kon moo ñu man waaw <laughs> <laughs> ah, kon boo yeboo daal nga jàpp ni eh. moo ñu man macha allah loolu lu am solo la doon mm. polyvalent xam nga loolu la si daan wax quoi polyvalent mm. waaw Modou macha allah mm. donc lenga yaa ngoog Adja ay ca ñu dalal sunu gan nuyu ko Cheikh eh, Ahmed Tidiane Niass ñu ngi lay nuyu di la ziyaar ñu ngi lay fay di nuyu ñu nekk ci plateau bi yëpp waaye di nuyu njiitu kër gi Euh, Cheikh Tidiane Niass. Mm-hmm. di doom ci Sidi Lamine ñas waaye di jëtal ci nuyoo bi xalifa général de na Niassène sunu kilifa muy Serigne Cheikh xalifa Niass ak mboolem rakkam yëpp di maa ngi lay fay di am mbégte kontaan te toog ak yéen. Mm-hmm. d'accord ci kanam tuuti ñu dugg ci dañuy daal di nuyu ñëpp ziar ñëpp kërif gëru diine ak aada yi sëñ Abdou Karim ñu ngi koy nuyu ñoom Mama Jaynaba ak monsieur Lo ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di leen ñaanal jàmm également ak sëñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahat Mbacké ay ca ñu dem jëli ay di njàmbat Cheikh euh, Tidiane. Mm-hmm. ñu koy nuyu bu baax di ko masawu man fooga naa ne sax bi ñëw day laxas loxo bi indaale parce que gis naa ay vidéo mm-hmm. yu ñu laxas loxo bi mu tëdd ca hôpital du ñàkk ci biir émission bi sax topp dinañu ko illustrel mm-hmm. Serigne Cheikh Tidiane jamono ñuy élection gars yi di jubilé yow nga tëdd hôpital lan moo xewoon kaw Kaolack ba fitna googu dal kaw sa digganteeg Ousmane nowel bien mi ngi waaw waaw euh, élément bi waaw kon léegi ñu suivre élément bi rek topp diktal ñu ko après ñu ñëw parce que comme dafa laaj ay preuve ak yooyu ñu seetaan ko ñëwaat. waa Ousmane Noël Dieng yi la waa Ousmane Noël Dieng ñoo jàpp Cheikh Tidiane Niass dofu maam Khalifa dóor ko ba muy voté ji ngir lan Ousmane Sonko la ñu jàpp ko dem dóor ko. ñu jàpp ko dem dóor ko après ñu indi Cheikh hôpital ñoo ngi nii ñu indi Cheikh ñu ñëw di ko dóor ñu ñëw indi Cheikh hôpital ñëw di indi ay bukka ak mbokku Cheikh yi ñoo ngi nii man rakkam laa rakku Cheikh laa ñoo bokk ak baay. liiru dara nañ dem ñu toppatoo bureau yi dañoo bëgg a yàq vote bi mais buñ leen ko may bu ñu xoloo bu ñu xeex li indi nii yëpp day jeex après incha allah. bu leen topp ci ci ay détails sax bu ñu ñëwee fii lu ñuy wax bu leen xoloo bu leen xeex voilà bu kenn xoloo bu kenn xeex kër paa bi foofu am na caméra surveillance caméra bi génn li fa xewoon lañ fay saaga lépp génn na loolu jarul détail ah, foofu am na caméra surveillance lépp génn ko jarul xeex jarul xoloo bu leen topp ci waaw ah, muy noonu man maa sàkk woon pour ñu indi image yi parce que ay waxi kase rek euh, te comme télé image la ak euh, lan moo dox sa digganteeg euh, Ousmane Nawel ba nga mujj ci hôpital ci bisu yi. ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñ digganteeg Ousmane nag dafa yàgg parce que waxoon naa ko bu ngeen fàttalikoo am na ay photo yu moonte woon mu génnoon fi ma expliqué loon suñu digganteeg moom coow yi fi amoon. Mm-hmm. ci coowal xalifa bi la du suñ coow parce que xalifa bi la jógoon di ko attaqué ñuy défendre xalifa bi ñun léegi nag moom xëy na peut-être bëggoon naa jàllale politique ci biir kër xalifa Niass ñun tamit ñu bañ ko parce que politique politique la mais këru diine nag dafa am loo xam ne bu fa yeggee ña dëkk ñoo jëlul seen responsabilité seen bopp kenn du ko politiqué bi loolu passé nag ay détails yu bëree bëri bëri jaar na fi mais li am importance rek mooy li xew nii li nii nag euh, bettuñu woon parce que li tax bettuñu woon mooy euh, man maa ngi watee fu ñuy wax école Jalañ Tafsir Mignane Sarr moo jàkkaarlook directement kër porte parole Léona Niassène muy Ahmed Babacar Niass man maa ngi voté vers 9h30 10h bi ma voté ba pare euh, ma dem sama kër bi ma demee sama kër fekk euh, avant voté bi ci guddi gi doon nañ dajaloo di xool suñ mandataires yi ak euh, ñuy siège ak yooyu ku ci nekk ñu xam kan la pour mën a mën a sécuriser vote yi bi ñu toogee ba vers suma jumul 15h30 16h. ma jóge sama kër taal sama oto ñëw bi ma ñëwee madame la député Roqee Ndiaye moo ma woo bi ma ooyee ne ma foo nekk ma ne ko maa ngi sama kër mu ne ma ñu nekk ci CGB dañoo bëgg a toxalu euh, ñëw fii école lycée Limamou Laye asafula lycée Limam lycée El Hadj ñaar ñooñu maanaam bu fekkee dañuy toxalu yow lañ xam côté boobu noonu bu ñu amee lu soxla yow yaa dëkk lew il faut nga dem fee ma ne ko d'accord kon xaaral ma dem parce man démb damaa fanaan ci veille fële na mu ne ma d'accord ma ñëw bi ma ñëwee maa ngi fekk porte problème nañu seen Ahmed Babacar Niass mi ngi taxaw buntu këram sol benn yére bu bëla bi ma ñëwee mu nuyu ma ñu ñu waxtaan ñu waxtaanu mbiru mbiru àdduna bi waxtaan tuuti rek ci la Ousmane jàdd benn pick bu bu weex ak otoom benn Prado bu weex encore ci gannaaw oto bi ay nervi ñu ngi ci ak ay garde am bi mu ñëwee dugg ci école bi mooy fi ñu voté bi mu duggee euh, ki ñu yoral suñu mandataire bi génn ak ki ñu wax aji ndaw aji ndaw yaakaar naa ñu ko xamul bariwul téewoon nañ ko aji ndaw bi mu génn wax police bi ne ko kii voté na ci suba ba pare deful dara fii ci biir dafay indi coow na génn police yi génn ko xaw na fa jot ak police sax bi ko police yi génne mu génn ci biir nag foofu la commencé indi coow li diggante fa école jalañ bi nekk fi ñuy voté ak kër Ahmed Babacar xaw na xëcc tuuti def na quelque distance mu bàyyi fa mu nekkoon retour na ñëw ci maanaam euh, buntu kër porte-parole Ahmed Babacar comme si gis na ma ci la ci la ñëw taxaw lu tolloog fii saa toog ak fi ma toog taxaw dagg ay saaga ndey te boobu porte-parole bi mi ngi taxaw sedda la mu dagg ay saaga wax wax yu ñaaw ci la Ahmed ma jug génn fekk man sama oto boobu porte bi mu ngi ubbeeku woon maa ngi teg aw ay son zikkar Ousmane Anta bu ko cey ñuy déglu bi ma ne xaaral ma ne tëj porte bi ci la jegewaat encore gën ma sës bi ma gën a sës nag ci la commencé dagg ay saaga ndey amul sonko amul nangam ndayam ku fi wax ñu nangam sa ndey wax yu ñaaw ma ne ko yow Ousmane loo jotee man man daal fi ma naan loo jotee ak man rek ci la kër. voilà kër. kër bi mooy. waa lii bi ma bi ma yóbboo plainte bi la ci procureur. voilà bi loolu amee bi ma jekki jékkee gis kër bambara yi dégg yuuxoo yi fekk moom garde corps mi wan nañ ko war nañ ma gannaaw ni maa ngi jàkkaarloog moom ma jéggi yuuxoo yi ci laa gesu rek gis benn garde corps bi te comme genre nguur de yooyu benn yat la mais yat bi dafa am genre bopp. di ma ko bëgg a dóor ci bopp ci laa reculé mu daal ma fii boo xoolee sama fii dañ koo dañ koo taf ala alastoro gis nga sama fii dañ ko taf alastoro parce que mbagg bi dafa dafa déboîté woon bi loolu amee nag après may arrière bi may arrière fekk foofu am na ay mool yu fa nekk mool yi nag ñoo ma fa kastal ma daanu bi ma daanoo ñu bëgg dal sama kaw ci la policiers yi nekkoon ci buntu fi ñuy voté daw ñëw dàqe leen ñoom ñu daw mhm. bi ñu dawee dem ba ci tëli ba encore indiwaat fa boucan bi ñu fa indiwaatee boucan ci la benn policier bi ci boppam moo jël sama caabi oto dawal sama oto dugal ko ci biir école bi ñu yepp ma ci oto bi ñu boole ma ak suma benn xarit moom ma yóbbu hôpital mu yóbbu hôpital sama mbokk yi waa lew na yooyu yëpp ko ñëw jóoru si hôpital mhm. après coow bari fa en même temps moom mu ñëwaat biir hôpital encore fekkaat ma fa encore hmm? mooy image boobu ngeen gis sama rakk bi di wax loolu ah, biir hôpital Cheikh Ibrahima Niass la bi ma fa fekkaatee coow li bariwaat ma dem ñu rajo ko ne noo loxo bi dammut mais dafa débuwaate wu il faut que ñu defal ma ay nangam pour piquer ko pour koy delloo bu ma ko yëg ak yooyu hmm. bu ñu boobu mi ngi ñëw moom ci biir hôpital bi di jaabanteeg ñëw ca la madame la député Rokhaya Ndiaye moom óolootul man ma ñu ñu bàyyi ma foofu ci hôpital bi ñu may faj parce que moom mu ngi fay ñëw te xamul lu ko lu mu fay def ci lañ ma jël yóbbu ma benn clinique bu ñuy wax clinique jaaraama bi ma yóbboo clinique foofu noonu après fala fanaan presque clinique bi ba tane bi ma tane nag ci la ci la ci lañ na xaaral comme si lii am na leneen mën na cee xew lu dul lii nañ dem ci yoon ci lañ ko yóbbu ci yoon Mm-hmm. kon mbir mi mi ngi ci yoon parce que avant nga may dugg boo gisee sa image ñu génnee ko mooy mujj nga am certificat médical ba porter plainte ba Ousmane ñu mujjoon ko téye bàyyiwaat ko nan la demee. waa xam nga ñun nag li may wax toujours ñi ngi ci politique mais dañoo am kilifa d'abord lu mu mënta xew dañoo am kilifa suñu kilifa mi ngi tudd Serigne Cheikh Tidiane Khalifa Niass bi loolu amee euh, mbokkam yi dañoo def euh, délégation dem ci xalifa bi ñaan ko ne ko ñaari kër kër Pa Abdourahmane ak kër El Hadj Babacar Niass wax seeni wax ñu fekk ma ci kër ga jay na ba taawu xalifa bu jigéen bi moo fekk na ma kaay uyu sam papa vers 22 heures démb ci guddi ma dox ñëw uysi ko fekk fa ay magam ñu ñaan xalifa bi ñaan ma ma ne ko man waroo maa ñaan nag ma war a digal may def boo ne ma bàyyil ma bàyyi boo ne ma defal ma def nu ma damaa bëgg nga bàyyi ma ne ko bàyyi naa loolu après mu ne naa nag du bàyyi dama bëgg au procureur jox la ko ma au procureur jox ma ko ma ne ko bàyyi naa lépp ma it ma wax samay doléance ne ko bàyyi naa nag mais bis ni ki tey dama bëgg bu ñu détails yu mel ni boole maag moom dama bëgg mu bàyyi ma divertissement parce que maanaam jot na tur a sa tur da ngeen yàgg jote quoi. waaw yàgg nañ jotee wax naa ko waxati ko yàgg nañ jotee yàgg na indi ay mbir di ko monter di ma dugal ci ay détails ay nangam nangam mais amuñ poroblème boo xam ne maanaam bu ñu war a régler la man ak moom mais problème mu famille bi la amoon nag xëy na peut-être. ma gën cee mais da ngaa retiré sa yow. waaw dindi naa plainte bi. léegi moom après ñu bàyyi ko. waa bàyyi nañ ko parce que mooy li ma la wax léegi dama am kilifa. Mhm. ak lu mën a xew su ma sama kilifa ne ma bàyyil sañu ma ca teg dara. parce que li tax bu ne ma bàyyil sañu ma ca teg dara avant politique dafa am lu ma maanaam dafa am lu ma encadré ba pare. Mhm. mooy lan mooy famille Léona Niassène famille boobu encadré ma nag dafa am kilifa gu nekk ci bopp bi muy Cheikh Tidiane Khalifa Niass mooy suñu kilifa. Mhm. nee na ma bàyyil bàyyi naa ak lu ma mënti def lu ma mënti teg loolu loolu après. la ca yoon war def lañ ca war def la ca saw dana ko def mais la ma war a bàyyi bàyyi naa ko ba mu ñibbi këram. waaw ñu ngi lay ziar. yow Ousmane waa bi mu lay dóor kii bi euh, fa mu la féete kanam wala ginnaaw. no ki ma ki ma dóor. yat bi kooku gannaaw la ma féete woon. ginnaaw la la féete ginnaaw la ma féete. moo la ko dóor ci mbag mais bi muy dóor. waaw non bi muy dóor. waaw maanaam kër bambara yi fi ma jàkkaarloog man. waaw jigéen ñi ñoo yuuxu. ñoo yuuxu waaw parce ñoom gis nañ gis nañ mu yëkkati yat bi mu ñëw sama bopp benn garde corps bu njool la. Mm-hmm. Euh, bi mu yëkkatee yet bi di dóor man nag si ma gestoo ci laa ko gis ci laa baara sama loxo bi mu dal fii hmm. bi mu dalee fii nag man bi may arrière ci ma benn mool teqatal ma daanu fu mu yet mu dal ci sa loxo bi yet bi yet bi fii la dal waaw foofu la dal quoi voilà mais yat bi bi mu dalee fii nag hmm. beneen garde corps bi bi ma arrière yooyu ñoo la dóor yat ci loxo bi fii sa loxo bi sa loxo bi ni nga koy yëkkatee quoi dafa kii trop nañ si dooree ah, yàlla nan lañ joree gurne dóor ko ci man moo ma jaaxal daal ñu doon loolu <laughs> barki dem ba tey la de ah? ma fanaan clinique ñu faj ma ah. naa war naa mën a xaw a tuuti lii moom féex na mais diggante fii ba fii fi yat bi daal féex na yat bi fi yat bi fi mu dal féex na mais xanaa kooku dóor dóor dóor ponkal ah waaw saa yow man gourné bi waa ji yor ak yàlla yow dóor yow yow da nga maa yéene woon nag saa wax dëgg ma xanaa da nga maa yéene nag wax dëgg yàlla. non wu ma la kii quoi c'est que xam nga. Euh, <coughs> man boo dama am lu ma constaté quoi dama am lu ma xam ne yow euh, bi ñu fi lakkee oto Cheikh Bara lakk nañ daal nañ sa oto wala indi wuñ doon projet lan lañ defoon sa oto am na lu ñu defoon sa oto oto daal lakkoon oto Cheikh Bara moom am na lu ñu defoon otoom moom bi ñu kee kiiwu Cheikh Bara hmm. waaw xam nga concept yi mën na c'est man li affaire yi da dajaloo quoi moo ma jaaxal ñu dóor Cheikh Bara fële fetal yow yat ñëwaat. ñaari kii quoi moo ma jaaxal ah. xam nga lu tax loolu. xam nga Euh, ah. concept yi peut être xëy na nit ñi. waaw seen gis-gis. daje yi muy daje waaw dañuy waxtaan nit ñi seen gis-gis. Mm-hmm. ak lay am man loolu vraiment concerné concerné wu ma li ma concerné rek man. Mm. mooy li ñu ma def publiquement la ñëpp di ko gis. Mm. publiquement ñëpp di ko gis mooy maanaam Ousmane Noël aviyé na ne moom moo def parce que bu aviyé tu ne moom moo def ay mbokkam duñ ñëw ñaan njekk pour baalu. d'accord naa ne bii benn ñaareel ba mooy. def nañ seex Bara def ma. dañoo bokk ay principe dañoo bokk liñ gëm. Mm. di ko xeex. bokk gis-gis da nga ni moom ah, waxoo loolu. ah man dégguma affaire daf ma moo tax may laajaat. ok non ne lakk nañu oto Cheikh Bara. oui oui maintenant euh, lakk sama oto. waaw ma ne ko noonu lakkuñ sama oto. dañoo toj dañoo toj sama oto. waaw waaw dañoo lakk oto Cheikh Bara toj sama oto. waaw malgré sama oto moment bi ñu ko tojee nag moment boobu sama papa après daf na ma génne ko ci sa loxo ma génne ko sama loxo. Cheikh Bara ñu attaqué ko yow it ñu dooraat la moo ma jaaxal quoi di conscience yi quoi waaw maanaam dañoo dañoo bokk ay principe bokk lu ñuy xeex bokk gis-gis ñeneen ñi jàpp nañ ñun maanaam suñ gis-gis daf leen yàqal lu bari man sama gis-gis loolu la. waaw suñ gis ñun daf leen yàqal lu bari suñu engagement daf leen yàqal. Mhm. yàqal googu mu leen yàqal nag mënuñ koo fayoo ci ñun nu ñu engagé woo mais lu ñu ko mën a fayoo. Mhm. mooy ci yàqal ñu wala ci yàqu ñu wala ci xeex ak ñun wala ci gaañ ñu. Mhm. lii kese du leen euh, mais Ousmane Noël Dieng. Ousmane Noël mooy. waa xam naa ko moo nekkoon pirate te nekk ah, léegi di di di di di di léegi moom chargé de mission la woon ci benn ministère. Uh-huh. waaw bu jën Farba Sarr. Uh-huh. mais mais léegi moom même même bu fekkee nii da nga ko tooñ wala nangam ak nangam ban droit la am gaañ lañ la ay ñu ñuy àndal gaañ lañ la ñu yóbbu la hôpital mu dellu si waat ci hôpital bi moom moom lan la lan la lan la tekki kaw la. waa xam nga yàlla dafay àtte no du question doole sax amu fa doole. lan la parce que dafa am lu fi nekkoon muy nguur gu ñu wax nguuru Macky Sall maanaam bëri ñu ko yàqal ñoo xam ni détails yu mel nii moo tax ñu bëri bañ lañ te amuñu ak ñoom benn problème mooy dañuy ñëw Macky Sall dafa am benn erreur bu mu def mooy dafay fekk koo xam ni ci koñ tekkiwul dara mu jël ko teg ko ci kaw ñi tekki dara. kooku nag bëgg a jël doole jooja di ko xeexee ñu tekki dara ñu tekki dara nag bu ñu riposté rek ay ñëw jàmm du ñëw. loolu moo indi détails yi ko di ko dal nii yëpp ba ci ba ci Ousmane Noël. est-ce que nekkul aussi euh, day def social moo tax lu mu def ñu sëgg. non man nag yàlla dimbale na ma ba may seex ba léegi mosuma mosuma lekk 100 francs mosuma lekk ñaar demam lu yàlla dimbale na ma ci social la mi gisuma ko man waxuma du koy def it ma ngi koy def mais social dafa am lu ko jiitu mooy may ña nga dëkk ak jàmm. Hmm. booy def social. te yor base politique biir lew nañu seen. booy xool lew na nekk exemple cent cent personne nekk fa. Mhm. quatre vingt personnes yëpp mënoo juboo ak ñoom. kon loolu yow rivalam nga foofu ci politique euh, kii wala lanam nga. non non du sama du sama nawle du ma rivalam vraiment. ah du sama nawle. du sa nawle mais léegi bon lan lan ban intérêt la am pour ngeen jàmmaarloo yéen ñaar. waaw parce que xëy na mooy li ma la wax léegi peut-être maa ngi ànd ak président Ousmane Sonko. moom bu sañoon wala ñoom bu ñu sañoon duñ dégg benn këru diine turu président Ousmane Sonko te man <laughs> loolu dama ko assumé depuis au début mm. assumé samay responsabilité xaar naa lu raw lii fekkoon ma ci waxoon naa la ko émission bi ma mujjee évité yaakaar naa kon moom lii yëpp c'est normal mu def ko mais lii du dara affaire de politique la ko jàppee dem ba ci biir nag rànki dugg ci leneen lu bokkut ak politique parce que pour man nit boo ko gaañee ba mu nekk hôpital war ngaa tal leneen lu dul ñëw biir hôpital loxo bi neewul deful dafa indi turu saa ba jàmm waaw léegi Cheikh Cheikh laa woon sama ordonnance jaru ko jaru ko jaru ko ordonnance jaru ko dama problème bon déglu naa la ci li nga wax yëpp mais xam na la mooy sama problème mm-hmm. yow da nga am problème ak sa adversaire politique mu agressé la nga dem ci yoon nga am certificat médical bu ñaata jour nga am. certificat médical 5 jours nga am hmm, parce que hôpital 5 jours la def. déedéet mun na ëpp loolu ça dépend ci gravité ak incident bi rek voilà mais ba tey non non loolu amul ça dépend ci gravité. Euh, waaw léegi. Mhm. yow nga dem ci yoon. procureur jël dossier bi ba arrêté sa adversaire mhm. nga ne sa kilifa ñaan la nga bàyyi. Mhm. léegi sa ñëw bi ci télé bi lan mooy mobet bi. waaw sama ñëw bi ci télé bi nag wax dëgg neex yàlla. est-ce que du victimiser wu. victimisé moom parce que bi may ñëw xamuma woon exactement. ni li leen ah kay bi ngay ñëw war nga xam ne ci li li mu actualité waaw mais xam nga ne boo. waa xam nga ne non dañuy waxtaan si. waxaaral mais xam nga ne. xamul woon dañuy wax woon ne dinañ ko wax ci li ah man moo di waa léegi léegi man euh, comme daal. man li ma doon préféré nga wax ko mooy. Mhm. comme sa kilifa ñaan na la nga bàyyi. Mm. maanaam bul defati benn accusation. Mm. bul defati benn reproche. Mm. neel mbir mi am na sama kilifa ñaan na ma bàyyi. kan boo waxul loolu ci début bi kan kan bu mu defati benn accusation man. waaw mais xam nga mooy wax bi déedéet man li ma wax mooy c'est que man bu dénoncé daf may dugal ci victimisation soit da ngay am kilifa wala nga bañ am kilifa. fii réew mi yoon mooy kilifa ñëpp. tooñ nañ la dem nga ci yoon yoon jàpp na ki la tooñ. sa kilifa woon na la ne bàyyil nga bàyyi. pour man fa la wax bi waroon yem. est-ce que nekkul fa la wax jéem déggoo li ma la expliqué la man bi may ñëw fii dañuy wax sëñ bi bi may ñëw fii dem maa ngi Kaolack Kaolack laa jógee ñëw fii direct ci yéen gëmmaguma gëmmaguma bët wa maa shahidnaa illaa bimaa na bi may ñëw fii Assane waxuma ne ma lii lañ lay doy daf ne ma dañ la soxla plateau mm-hmm. euh, takk soo xaw ma waxuma actualité sax mais pour man bi may ñëw maanaam ci voté yi ni mu demee mm-hmm. détail yu maanaam élection yeeg extra extra ak sun voilà. suñ campagne ak yooyu mais li indi ci élection yi ak Kaolack. Ah. mosoo leen ko gagné lan moo nekkoon facteur bi gën a déterminant pour ngeen gagné Kaolack. ah non ñun moom fuñ fuñ masta gagné bëri na. fuñ masta gagné bëri na mais au niveau de ci ñu bett ñi bett yi bett nit ñi ci bokk quoi. waa électoral bi doon Sénégal Sénégal ñoo soxla changement rek. te soxla changement boo xam ne it maanaam dañoo dencoon seen lastikiri di xaar fuñ ko teg seen lastikiri mooy lan mooy tey aji carte kat bi. su ñëwee teg ñaar dërëm ñu nax ko mu teg fukki dërëm ñu nax ko mu teg juróom fukk ñu nax ko mu dese téeméer daf naa téeméer bi bala ma koo teg damay xam bu baax a baax ne bu ma ko tegee damay gañe wala du ma gañe léegi téeméer boobu ñu desee woon nag dañoo teg ci Senghor teg ci Abdou Diouf teg ci Abdoulaye Wade teg ci Macky Sall yooyu yëpp nekk pertement ñu ne bala ñu dugalaat dara danañ xam ne ñu dugal lan la moo tax Kaolack yëpp ànd mobilisé wu jàpp ne maanaam fi ñu dugal suñ téeméer bi ëllëg danañu jural ay dix mille dix mille. donc li mu wax mooy Kaolack di ngeen ko doon percé ko waaw moo tax ma wax la ne la. Euh, ban liggéey ngeen def te et puis tamit Serigne Mboup mi nga xam ne mooy ànd nawle nga xamante ni bii dafa defoon score. <laughs> Euh, score bu mag. bi yoon Serigne Mboup euh, daal di mm. fay perdre quoi. ngeen ñëw percé fa percé boo xamante ni bii jaaxal na nit maa ngi loolu liggéey la boo xam ne yéen a ko fa def wala. maa ngi maa ngi jéggalu Baye Assane aussi tamit ci. Ah. Euh, xaritam boobu sëriñ boobu <laughs> moom nga xam ni zéro voix yu bëri na lool Kaolack c'est-à-dire saa ah. euh, nit ku ñuul dafay jaawale ñaar muy dafay jaawale fi ko nit ñi waree bëgg mhm. ak moom fi mu waree bëgg nit ñi mhm. ñaare daf koy jaawale fi mu siiwee ak fi mu war a doxalee wut fi mu siiwee mhm. parce que maanaam élection li ñuy wax élection maire yi waaw sëriñ boobu dafa am lu gën a tax mu gañe muy lan li gën a tax mu gañe mooy maanaam am na discours bu président Ousmane ko defoon ne élection gox élection maire xool leen ki ngeen yaakaar ni war naa mën a yore seen maire ngeen jox ko ko hmm. waaw dégg nga wax ji Kaolack ñu ci ëpp bokkoon Pastef hmm. jàpp ne Mm-hmm. Serigne Mboup mi war naa mën a defar Kaolack. non dañuy wax dañuy wax non wax nii kay déglul sëñ bi. may ma bu ma dagg danaa la indil étape par étape. dama lay dugal rek nga que nekkul Kaolack da ngeen am problème mu leader. d'accord ah. mm. mm. moo amul Kaolack. Mm. waaw d'accord. loolu aussi il faut nga préciser ko. d'accord danaa si ñëw. xam nga li ma lay wax liy firnde liy firnde bi mooy gis nga Serigne Mboup. maanaam xoolal écart bi mu gagné li nga xam ne mooy élection euh, maire yi ak bi nga ñëwee ci élection présidentielle yi maanaam ni ko ni ko Kaolack ni ñu ko wullee kawlax ba ulli ko fi nga xam ne mooy mooy quartier koñam loolu bokkul bu ñu jaawale élection présidentielle bokkul ak élection maire ñaar bu ñu ko jaawale beneen bi ci des mooy ñun amuñ problème mu leader. non non la vie. Kaolack kan mooy leader bi Pastef. kan mooy leader Pastef ça veut dire mais Fadilou est-ce que ñëwoon na laaj mairie bi su ma nee leader mooy koo xam ne. dafay ñëw. di politique ci gox bi. yéen ñëpp ngeen référé wu ci moom. koñ sampoon pour mu laaj loolu. Euh,

sëriñ boobu laa sànnil. waaw dégg ko comprendre rek dama lay wax li dama ne. Mhm. xam nga comme niñ ne fii Dakar. Mhm. wala ñu ne Ziguinchor Ousmane Sonko mooy candidat bi. Mhm. wala ñu ne feneen feneen diw mooy candidat bi. Pastef amul woon candidat bu bokk ci partem biir Kaolack. ah amu fa woon amu fa woon. candidat bu bokk parti parti kat. bu bokk Pastef koo xam ne candidat la woon ci mairie bi. amul woon. ah non non non. waaw parce que leader la. non non ah, loolu amul looloo tax ngeen voté. voté ñu dem ci sëriñ. non non. Euh, non non boobu am nañ Fadilou Keita mi ngi fi woon. mais laajul mairie bi. boobu lu mu doon laaj. est-ce que candidat la woon ci mairie bi. lan la woon. non bu nekkoon candidat ngeen voté ko. kan mu nekkoon candidat Pastef ci mairie bi. lan la woon laa la laaj kay. non Fadilou Keita demandé woon dina candidat. déggu déggu li ma la expliqué Pastef. ndax Fadilou Keita candidat la woon. sëñ bi moytul yaa ngi teg sa loxo bi balaa ngay gaañ ci mbagg mi. bu ko déglu bu ko déglu bu ko déglu euh, gis nga sëñ bi bu ma jaxasee. <laughs> jaxase bu ma la parce que Fadilou nekkul woon candidat. waaw dañu daa d' accord bu ma jaxasee. dañu waxtaan. gis nga dafa am loo xam ni buñ ko jaxasee ci waxtaan. parce que buñ jaawale élection maire ak élection présidentielle. waaw même si que Pastef bu amul candidat bu ko demal. ci ci maire yi. Mm-hmm. man man dama la wax lu leer dama ne la Ousmane Sonko daf ñu yeewi ci élection maire yi. Mm-hmm. même si bu amoon candidat buñ fa samp man Cheikh Niass ma gis na Serigne Mboup mii moo mën a defar Kaolack du man Serigne Mboup du du dama du sa candidat Pastef laay sànnil di perte sama xob damay sànnil Serigne Mboup parce que booba intérêt Kaolack moo taxaw il faut que nga déglu ma mais non no non non man néew ma ci yooyu loolu loolu néew ma ci yooyu li tax néew ma ci yooyu dañuy waxtaan rek dañuy waxtaan néew ma ci yooyu xam nga tax néew ma ci yooyu Ousmane sonkoo ci boppam Ousmane sonkoo ci boppam maam daf ñoo yeewi ci côté boobu laa la wax. da leen a yeewi waaw yeewi gim ñuy yeewi saa njoogu déglu ma bu baax. kii mën na maa bañ a déglu peut pour pourquoi. maa lay déglu bu baax li ngay wax. laa daf ni dafa def déclaration ne. waaw maanaam élection gox. Mhm. muy koñ. xool leen ki mën a yor seen koñ seen gox ngeen fal ko loolu xanaa waa Kaolack la ko wax parce que Dakar nee na fa jàpp voté leen sëñ loolu loolu la yéemi ci internet bi Ousmane Sonko génn newul kaso ñoo ko daan sosol man sosolu ma ko moo ko wax ñëpp di ko dégg ma wax la bi gën a dee Saarata Sonko sëru président Ousmane Sonko kii la dem ànd ak nu mu tudd sëriñ boobu la dem ànd ak lu gën a dee loolu waaw parce que amuñu woon non non non kon li ma lay wax xam naa ko. non parce que saa euh, yi man kaw laa dëkk dañoo waaw dé déglul kaw la kaw d'accord man man politiquement je sais man sëñ bi sëñ bi déglul Pastef amul woon candidat moo tax militant yi dem jàppale son jàppale sëriñ Mboup bi bi problème mu scandale mairie bi amee ki ñu fi recevoir kooku Pastef la bokku waaw non parce que débat bi mën nañu ko animer man ak moom mais dafa il faut euh, mu reconnaître leen hmm. Fadilou Keita il est de Pastef Fadilou est de Kaolack mais Fadilou n'était pas candidat aux élections municipales bu nekkoon candidat jamais dire bu leen xool leen ku leen arrange dinaan Kaolack fa voté leen Fadilou loolu laa wax non Kaolack élection élection élection maire yi non amul woon candidat non amul woon ah, candidat waaw attends am nañ candidat élection maire yi élection député yi am nañ candidat élection maire yi am nañ candidat ñaar yëpp am nañ candidat député xam nañ ko waaw parce que élection maire yi intéressé wu ma ma xam candidat Pastef man bu laa wateeloon man damay wax damay wax sama diggante ak yàlla man néew ma ci yooyu noonu. pourquoi ma woteel ñoom parce que Serigne Boub fa parce am la léegi euh, ñoom ñoom euh, Ahmed Youssou Benjelloun président conseil départemental bi nga xam ne dafa àndoon ak Serigne Boub gagné. Hmm. ak ñoom euh, Pape Demba Bité ak ñoom Rahma ñu def booloo. Kaolack ñoom ah, Kaolack sax dañ. waaw élection élection ah, waaw man kay. waaw vraiment. jaawale. da ngaa jaawale ok léegi jaawale député maire dama koy xam foofu nangu naa. waaw kay la mais nag mais nag bul jaawale yow it ñaar. bul jaawale élection député. jaawale ba ak élection ah, présidentielle. élection. <laughs> yaa yaa jaxase carte gi teg débat bi. saa fi saa ñoo participer. Ah, damaa xiif nag. yow nen def bu xiif na yow bu fi wax xiif laa wax koor gi jeexam. te te du ma teg. <laughs> Eh, eh, eh, barke Mohamed <laughs> non doo tëj non doo tëj doo tëj non léegi xam nga tey jii projet bi yow jaral na lu ne. Mhm. nan la ci tuumaal nan la ci. Mhm. lu ne daj ngeen ko ci. merci mhm. depuis deux mille vingt et un ak tey jii. léegi projet bi fan ko doon xaar yegsi na fa. mooy Diomaye nekk na président. léegi lan ngeen di teg ci loxoy sénégalais yi. pour que parce que dégg nañ Diomaye démb. ñii nee nañ waaw ñii nee nañ déet. est-ce que am nga yaakaar ci ni la ngeen doon dig sénégalais di ngeen ko def alhamdulilah laaj nga ma question bu ma doon xaar ku ma ko ci laaj ci yéen ñi ñëpp fi may njëkkee mooy euh, d'abord dañuy féliciter sénégalais yi li tax ñu leen di féliciter mooy dañoo wàcc askanu Sénégal yëpp euh, beneen bi ci desit mooy lu mësul am ci Sénégal yaakaar naa moo am mooy opposition gagné largement première tour maanaam ki nga xam ne moom mooy moom mooy moom mooy président bi wala kim fi samp mu ngi soog di am loolu dafa am sas bu leen sénégalais sas sas boobu nag Bassirou Diomaye Faye def ci am responsabilité bu mag responsabilité bi mu ci am mooy njiit bu ne ëllëg yomal xiyam yàlla dana la laaj noo sàmmeewoon sa njaboot tey yar bu daan dal Macky Sall moo koy dal tey parce que na jàppu ne tey maanaam ñi ko daan xeexal ñi ci ëpp summeeku nañ solaat beneen yére bu bokkul ak yére bi ñu soloon mooy lan mooy toog ci bangu tuus bi du xool ba xam ndax ñii ñoom la wala du ñoom man de boog d'abord ci ñooñu laa bokk ci ñi nga xam ne damaa damaa retiré wu ndànk toog ci baamu tuus bi di xool ba xam lañ ñu doon wax egsi nañ ci cappaandaw gi ndax jox nañ leen ko ndax maanaam danañ ñëw ci njëriñu sénégalais yi wala ci seen njëriñu bopp la ñuy ñëw comme ni ko président Macky Sall defee ba sénégalais yi xeex ak moom depuis 12 ans bi ci desit mooy am naa yaakaar gu rëy ci ñoom yaakaar gu rëy gi ma am ci ñoom mooy euh, bi ñu taxawal mouvement Modap doomu daara président Ousmane Sonko dafa am kum njëkk yebal ku bokkul ak Bassirou Diomaye fay dama tudd tur kooku bi mu ñëwee niñ bëggee woon yëf yi taxawee mu bëri ay maanaam xiiri xaaraak yooyu noonu mais président Bassirou Diomaye Faye ci dalam ci dalam bi mu ñëwee xam nga doomu daara fi ñu toog il faut ay détails bëri ci maay jiite du ma jiite nangam nangam nangam nangam loolu loolu loolu noonu la yàlla bindee doomu daara mais biñ toogee Bassirou Diomaye Faye ci dalam réglé na li mu bëgg a réglé yépp te coow tàkkut te kenn ku ci nekk ba mu àggee woo na la téléphone wax ak yow ci dal peut-être trente minutes wu lu ko ëpp kenn ku ci nekk it bañ joxee poste yi moo taxaw ne ah, su ma sañoon de diw nangam su ma sañoon diw nangam diw nangam te ci baat te loolu dal moo ko mun parce que da nga dégg wax yoo xam ne du la neex mais boo dalul doo ko mën a régler loolu mooy benn ñaareel ba tamit maanaam euh, président Ousmane Sonko lu mu def xam na ko lu mu def xam na ko mooy ba Bassirou Diomaye Faye fépp fu Ousmane Sonko teggi tànkam teg na tànkam cig njub maanaam cig métital ci leneen ak leneen ak leneen su ma juumul yaakaar naa moom moom lañ njëkkatee président Ousmane Sonko. mu dem toog fa te aussi tamit mënoon nañ ko takkal bracelet mu nangu ko génn def ay activité am mais peut-être xëy na ngoram ak jomam mayut ko ñu koy takkal bracelet ak nit ñi si dee ak nangam ak nangam fi may tëjee ci loolu mooy dafa am charge bu may jël di ko ko jox moom moom président ba Bassirou Diomaye Faye mooy na fàttaliku xale yi nga xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan ci projet bi lu rëy la responsabilité bu mag lañ ko dénk na fàttaliku ñi ci laago. na fàttaliku maanaam ñi nga xam ne jër nañ yoonu géej gi dem ngir ñàkkoon yaakaar ci réew mi na fàttaliku aussi tamit ñi yàq seen liggéey na fàttaliku aussi tamit capitaine Touré extra extra ñi nga xam ne din raja nañ leen ci seen liggéey yàqu ci na fàttaliku ñi ñu ci yàq seen der na fàttaliku presse yi ñu ci yi ci gaasé na fàttaliku presse yi ñu ci tëj ba ataawal fajiri mii tëj nañ ko ci lu mel noon bu waxee dëgg wala bu génnee ay image ñu ne nangam ba woo yaay benn gone gu ndaw gu nekk fële ne woo yaay nangu nañ licence am te yàlla moo nangu licence bu gën a mag ci ñoom muy licence nguur te Walfadjri ngi dox ba tey léegi nag yooyu yëpp Bassirou Diomaye fa daf ci war a tirer attention sénégalais bu sénégalais yu am fayda nag la jiiti yoo xam ne bu drapé lu toll ni tarfatalaay ni Cheikh Tidiane Niass mooy kii njëkk a taxaw attaqué ko ne ko du lii lañ doon xaar ci yow du li maay premier opposant bu boobaa bu boobaa na ko xam te jàpp nañ ne loolu du am parce que tax ñu jàpp na du am mooy discours bi mu tenir bi mu indi jàpp nañ ne maanaam ku nar a boole la mais nag na leer de ci kaw ñu rey suñ doom yi na leer loolu moom amul toloore sa sa waay Omar déglul admissé ak lu dul admissé fañ jaarat ba admissé nañ fa jaarat bañ bañ xam ñu rey suñu doom yi. mais bi ñu amnistie ci la Basirou ak Sonko génn prison. Mm, ku leen génn ñoom ñoo ñaan. ñoom ñaanuñ pour ñu génn leen ci amnistie bi loolu seen affaire la. man dama lay wax li nga xam ne man sénégalais yi ñu ngi koy waxantu muy li am. ñi admissé loolu seen affaire mais soxna si dossier moom pour tijjiwaat ko dafay jaaraat assemblée nationale. nañ nañ boo ko jaaree nañ ko def bakkan du caaxaan dafa am ñu ñu rey ñu ñu rey fii tiiri leen waaye may ma rek bu ñuy baale est-ce que boobaa duñu tardeel wax tardé mënu ci am ah. loolu mbiru justice la dañ ko bàyyi justice sëñ bi bu fekkoon ne heure buñ politiquee rey ay nit buñ ñëwee na admissé leen bàyyi leen léegi te ñoo bañ a te ñoo bàyyi politique ñun ñëpp ñu dem defee leneen yow xam nga luy bakkan doomu aadama est que xam nañ bakkan mais yaa ngi yow ah Noël tooñ la ñu ñaan ko ñu ñaan la nga may ñaan déet ñaan ak armis bokkul dañ ma ñoom ñi ma tooñ. am na si am na si bopp doole ñaan sax am na saa tey da nga koy sànni déedéet déedéet de soxna si. bi ñaan baale xam nga nuñ mel. ni Ousmane Nawel mi tooñoon. moo ñëw ne ma baal naa la mooma moo tooñ <laughs> te man maa ko war a wax ne ko baal naa la loolu bokkul de man miñ tooñ bu leen jaawale <laughs> man miñ tooñ non déglul déglul man miñ tooñ man miñ tooñ ki ma tooñ moo ñëw moo ñëw ànd ak ay mbokkam baalu si Ousmane Sonko àndut ak ay mbokkam dem baalu ji ki ko tooñ moo ko tooñ ba pare na ko baal na ko baal naa la de la vie ma ne Omar li ma lay wax yaa ko gën a xam jaar nga Saalum dégg nga Wolof dama ne la ki tooñ ki tooñ warul baale at mi si waru ci am bakkan yi ñu rey na leer yaa ngi dégg sàcc yi ci état bi nekkoon ci état Macky Sall ñoom ñun ñu taxawat na ñu ñoom ñooy sàcc suñuy milliards leeragul ñu jékki-jékki dégg leen ci gouvernement bi mm. na arrêté buñ ko dégg xaalis ku jël xaalis réew mille milliards yi na leer li fi sëñ Mountakha jaxoon ak yen ak yeneen kilifa yi ci wàllu Covid bi xaalis boobu fu mu dugg na leer voilà mooy di sant di gërëm tey nag damaa xaw a réer <laughs> waaw damaa xiif boole koog mar lool bul wax loolu parce que ñu bëti dañ lay sonal rek garaaw bëti bëti amul problème <laughs> euh, ñu ngi sant di gërëm di am mbégte kontaan di toog fii mm-hmm. euh, maa ngi jéggalu di wax it ne sama mbokk yi nekk lew na yëpp euh, ba ñuy ñëw fii xamuñ woon ne maanaam leeral lu mel nii moo ñu fi indi woon waaye maa ngi ñaan képp koo xam ne si sama si sama waaw nga aju bu ma sañoon mbiru Ousmane Nawel dañ ko teg ci suuf fàtte ko na ci leneen parce que yonent bi nee ki gën ci yéen mooy kiy jekku jéggale waaw nit du jekku jekkali voilà sëñ bi waaye maa ngi dug dem ba waxam admis yi ba waxam admis yi jërëjëf waaw toogal tuuti Cheikh toogal ba ma libéré la voilà léegi rek xaar ñas ñas nga xaar waa dafa xaar aja ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ñu daal di uh, ànd ak partenaire bi dellu boutique solution ci njiital alaaji Sanjoogu Mbeng ak Sohaybu Jóob ngir dëggal ak wéral ni suñu garabi cosaan yi lu wér la li waral seen boutique solution juddu ngir jële fi bépp xeetu caay-caay ci wàllu fajum cosaan ndax nit lekk alalam joxe ay garab yu wérul looloo waral ci diirum ñaari at yu manqué tuuti seen boutique solution di def ay résultats yu ama am solo biir réew mi ak bitim réew ci garab yii ñu leen di bëgg a limal ndoxum siit yi amuñu ci moroom hémorroïde bi nëbbu ak bu feeñ góor gu néew kàttan ay garab yu wóor te te amul benn effet secondaire secondaire moytu leen garab yi ndox yi estomac dañ koy faj ba mu wér garabu asthme bu efficace même boo amee woon asma bay piqué crise ñëwal fii ci boutique la solution bépp xale wala mag buy gént di tuur ndox ballottement tànk buy xar ba borom mënta sol ay fermé li jaaxal àddina bi yépp nag muy raay mu sedd bii ne ci boutique la solution lépp luy douleur ci yaram boo koy raay mes lay def am yeneeni mbir ci biir nag moo tax ñu naan ko raay mu sedd plus jaloore ak résultat yu la boutique solution di def tax na ñi ngi fépp ci bitim réew am na ca France États-Unis d'Amérique Canada Italie Espagne ca Gambie ca Angleterre Allemagne ñoo ngi en face Walfadjri ngeen mën a jot boutique la solution ci 78 426 66 77 wala 75 630 50 50 boutique bi xaatimul listixaarul seetul su ngeen bëggee dégg dëgg daal ba boutique la solution juddoo la jaay garab yi bon ak naxaate jeex. ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax waa régie di remercier nag waa solution solution nag hémorroïde impuissance lépp loo loo la dal rek ah boo ñëwee fii ñu ñu ñu saafaraal la ko alaaj macha allah ni nga ko waxee noonu la. ak ndox ak kii bi fas gi. waaw fas gi fas gaa ngi fi ak néew kàttan ak yooyu yëpp ñu ngi fii macha allah waaye Assane kenn wax la wula ci di wax ni yooyu yëpp macha allah am na ci boutique solution ak yi teg ndoxum siti ak tamit garab buy maye karaw karaw buy maye bu baax a baax mm. ak tamit ñi nga xam ne am nañ doom juy sawlal wala nga amee ku asma ak raay mu sedd raay mu sedd bu say mm. tànk xaree tamit ñëwal plus macha allah ak suñu tànk yi ak li nga xamante ni bi moom la ñuy wax euh, autoroute plus macha allah sukuraan Assane waru ci wax bu mu ci wax bu <laughs> d'accord kon Assane maa ngi lay nuyu di amaat mbégte toog ak yow. Mm. maa ngi lay fay ajaratu euh, biti mbub di am mbégte contentement waaw contentement si waaw wallaay ndeysaan <laughs> wallaay wallaay sumay mbagg la nekk. <laughs> maa ngi lay ziar rek Sénégal lu mu am citron zircon. zircon non zircon la pétrole feeñ na fi gaz feeñ na fi sucre moo fi nee na la sooy bu bàyyi. dama sonal de. maa ngi lay siyaare bu baax baax di siyaare El Hadj Sa Ndiogou Mbeng di siyaare Omar Bun Xataab Guèye. Mm. di ko ndokkeel moom doyen Modou Diouf. Mm. di siyaare Soxna bu Diop mi nga xamante ni tey jii moo wut élément boppam. defaral ko boppam tegal ko boppam. mu war ko topp war ko bësal boppam ma war see commentaire sama bopp ngeen jox leen. ah <laughs> kon élément bi yow sa yoon nekk. waaw damay wax rek. <laughs> maa ngi koy jox nag ni leen sooy bu loolu la ma wax loo. ñu jëli actualité du jour. <laughs> tam nag ni la saa bàkkee naqari na ma jéem la laave honneur bi nag yow tamit ay ca alaaji loo indi tey. Euh, Adja waaw ñu ngi andi tey comme actualité euh, première sortie euh, président nouvellement élu Bassirou Diomaye Faye mu nekk président de la République à 44 ans net. nga xam ne démb loon anniversaire am ñu koy souhaité joyeux anniversaire mu am nag wax yu bari yu ci jub am na ñoo xam ne dañoo commencé dem ci image bi ma bëggoon topp nga jox ma photo bi ma wanoon léegi ñu waa photo bii nii. Euh, prestation serment Abdou Diouf la en xam nga kon maanaam image bu ñëwee ci image image biñ gis bu jomaay image bi gënu ko kon c'était juste pour dire aux gens que ne njiit du physique njiit tet la ak politique ak euh, jub waaw loolu moo moo tax ma ne tam nañu pour taire un peu les nañ ci réseaux sociaux yi. ñoo xam ne ñu ngi ñëw déjà li lañ njëkk a critiqué ci ci ci ci ci ci discours bi léegi nag moom mu ñëw ñu ñëw ci kàddu gi mu indi ay ay ay ay ay ay yaakaar ci espoir comme ni ñu ko mën a waxee ci discours bi topp nga tegal ma tuuti ci discours bi ñu déglu ko comme ça ñu dellu si développé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 doxalin goo xamante ne wuute nag li fi nekkoon muy donc tànneefu rupture yaakaar gi nga xamante ne suñu candidature jur na ko ñu mën ko fësal te fas yéene ko doxal nag ak dal ak yoonal ak jub ak jubal ak jubanti waaye tamit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 soppite li fi doon am ndax nee na loolu moo tax sénégalais yi changement bi beneen bi mu ne dina gouverner ak humilité humilité moom c'est un boo xam ne bu ndaw la mais qui veut qui qui signifie beaucoup de choses mu ne dina xeex corruption dina andi gën a ñoŋ gën a defar dund askan bi ba dund bi seer neen loolu moom dina ci liggéey pour wàññi ko drastiquement neen nag dina def ay concertation maanaam waxtaan pour xool nu ñuy réformer institution yi dalal na xel aussi partenaires yi Afrique ak Europe ba gis nañ sax ci noonu ci la président Macron tamit defee tweet daal di koy félicité Omar Boun Khattab démb bi nga euh, gisee président Diomaye Faye nouvellement élu mu def discours bi ban appréciation ngay am. waaw discours bi d'abord du ko di ko rafetlu waaw di ko rafetlu te man dama bokk ci ñi koy may état de grâce boo xam ne dañ koy may temps te di maytu. bërit ñu ne noonu nañ ko critiquer non jomaay ku ñu war a gunge la jàppale ko ngir mu réussir ndax ñu ñëpp ñu réussir man loolu laa gëm. teg ci discours bi bu ñu duggee ci biir li may njëkk a dal sama xel mooy discours bi rassuré la tey xam naa ni bi muy bindu discours ñu koy jox soxla woon na ci loolu parce que daa am nu nu askanale Pastef am nu leen joxañee ñoom danoo radical. bu ñëwee day def ay changements yi radical mais ci discours bi da ngay gis posture homme d'état li fi nekkoon yëpp faxasul lépp maanaam même boo xoolee ci ni muy nuyoo ak forme beeg forme fond bi yëpp boo xoolee ni sunu njiitu réew doon waxee rek noonu la waxee te loolu moo indi mu ne mu daaneel rek CEDEAO yoo ak UEMOA ñu bari félicité ko parce que da leen a rassuré te loolu dafa am solo ci nit koo xam ne day ñëw di dugg ci lu bees mooy dal dalal xelu ay mbokkam ak ñu mu séqal mbir mi te yamut Sénégal Emmanuel Macron dafa daaneel rek tuut bi daanu kon ñoom ñu ngi ko doon déglu kon génnam bi boo ko doon natt ni baax na wala baaxul doo ko natt ci ni ko Sénégal gisee da koy nat ci ñu ko sunu nawle yi gisee te ñoom ci langage diplomatique bi mu paree rek félicité nañ ko ànd ak moom kon côté boobu man rassuré na ma man li ma doon tiital mooy mu ñëw rek ne rupture total faxas lépp ñu bëgg comme si dañu bëgg indil benn Sénégal bu bees mais nangu na ni réew mi am na lu fi nekk tey bu ñu am na ñu ne waxul ci justice lu bari tey jii bu waxoon ci justice ñu ne séparation de pouvoirs moom de mbaadu dafa ñëw fas yéene jëfandikoo justice comme na ko ñeneen ñi doon jëfandikoo ñu bari ñu ngi naan ñi fi dee ñi fi nii ñi nii loolu c'est pas Diomaye refondation boobu mu wax ci suñu institution ñoom ngay dëgëral ba ëllëg bu justice di def dara kenn du ne Diomaye koy def waaye dañ naan justice bi am indépendance am moom moo sëggu ci dossier sangam sangam sangam doxal ko mu wax ci beneen point mooy jàmm mooy jubalewaat sénégalais yi parce que danoo amoon réew mu xotteeku lu bari xew fi kon yor yor ay kàddu yuy dalal xelu askan wi loolu lu baax la humilité mooy lan lañ doon jiiñ suñu nguur mooy arrogance ay nit lañ yoo xam ne danoo féete ci kaw du ñu xool ci suuf loolu tax démb bi ma koy gis mu ne mu wax baatu humilité baat la bu ma gën a téye ci li mu wax mooy fa yam ak ñëpp mais aussi jël sénégalais yi def leen ay nawle ba duñ doon ñoo xam ne da nga leen di xeeb mais wàccee sa bopp ba ibbil buntu ñeneen ñi boo xoolee ñi ñu gañee moom mi gañee ak ñi ñu gañee yépp dafa ne tëjaluñu kenn buntu bu laajee ay waxtaan ci ñu juboo ci nun war a doxalee réew mi nañ ko doxalee looloy discours boo xam ne bu njëkk la boo xam ne tey njiitu réew bi ñuy doog fal da ngay am un discours qui assure mais aussi qui rassure mais doo ñëw comme tey bu ñëw rek na non damay xeex bu ñëw rek na noo damay songu lii bu ñëw na rek damay songu lii te bu te discours man xamalu tax du ma ci pesé wu ci lu bari Jomaay sànq Cheikh Tidiane mu koy wax te loolu man xamoon naa ko bu yàgg yi nga Pastef moo nekkoon le secrétaire général du parti yor cadre yi di nga ci nen tëggee Pastef ci structure ba parti bi dëgër man looloo gën a tax mu wóolu Jomaay Ousmane Sonko moo nekkoon ci kaw mais bari na lu doon lijjanti Pastef ci suuf Jomaay moo ko lépp Pastef mun nga dégg ay militants yi génn di di di xeex militants yi seen biir di xeex dogal bu ñu jël ñëpp ànd ci da nga foog ni loolu tabax la bu tabax nii rek. tey mais loolu lu yàgg la te loolu c'est le travail du secrétaire général ji nga liggéey boobu mun ñëw nekk Baye Fallou Pastef nekk bay Fallou Ousmane Sonko ba Pastef mun a nekk parti bu am ay structure dëgër même bu leader duggee kaso sax parti bi continuer di dox pour man noonu tëggee Pastef bu dee ni doxalin moom la tëggee Sénégal dina am Sénégal bu mucc ayib mais Sénégal bu gën bu doon discours dañuy fal Idrissa Seck bu doon discours dañuy fal Massamba wala Demba Sénégal falatunu ku mën a wax dañoo bëgg fal ku mën a te man foofu laay xaar ba Bassirou Diomaye Faye mooy du wax ji mhm. mais ci jëf yi te man am mhm. naa yaakaar ci moom ci mhm. côté boobu léegi nag euh, yeneen ni mun nañ ko wax ci ni la sonorisation heure bu mu ko doon maytuloo leen laa koy maytuloo bu mu dem ci émotion bu mu dem ci improvisation improvisation mooy ñëpp bëgg nañ ma wax rek damay wax njiitu réew dafa war a dem ba yëg ni moom moo war a wax mu wax kon tey jii lépp lu muy wax nan ko préparer ba mu egg. Mhm. mais tey jii Macky Sall mooy président ba tey jii protocole bi mu war a am amagu ko keneen ak keneen parce que yooyu yëpp war a am amagul daje pour jomaay mën a ñëw wax lii lii mais yooyu tey bu dem ba dugg pale daf ci am loo xam ne sañatu ko def pour boppam ay nit ñooy décider pour muy def dem mun na am bi muy jug moom moo jugoon pour wax mhm. mais bu dee ba nekk le chef de mhm. da am ñuy décider pour mu jug te ñoon duñ ko seetaan muy jug ci jugin woo xam ne tey ji bu jugee mhm. am ñu koy xeeb ak ñoomin seen mais pour man xaaruma falu ñu faluñu waxkat mais jëfkat la ñu xaal parce que bu doon du duñ fal jomaay waaw am na solo euh, Baye déglu nga discours jomaay bi am na ñoo xam ne dañ koy reproché ne wax na ba jeexal te tuddul suñu kilifa diine yow ban xalaat nga am ci loolu waa am na solo maa ngi gis nga <clears throat> indi photo Abdou juuf bi muy waat ñu gis ko mu jeex yooy kii waat nga ni photo ma nga ne photo jomaay baa ngi ni nga boole kon daal maanaam jomaay nii mu mel ni la Abdou Diouf meloon yaakaar naa ni noonu nga moo tax nga indi Abdou Diouf te xam naa jomaay jomaay ñoom ñaar mënuñu leen. sëñ Jabil dalal ba ndax ndax fi mu nekk nii matukaay yi bëri na par rapport ak bu njëkk. Mhm. waaw kon nag image yi du ñu benn mais ñi nga xamante ni ñoo ko génne ñi nga xamante ñooy kaas ni jomaay lii mu solo lii da koo ëpp nii image bi mel ni dafa ñuul loolu lépp waa see waa Pastef waaw ñi ma si gis man hmm. ay doomi réew meeg ay moraak ak ñeneen ak ñeneen ñëpp ñoom laa gis ñooy kaas hmm. doomi réew mi sax mu ngi dal naan El Malick d'accord ñu mën leen El Malick yoonam nekku hmm. matukaay yi ñëw nañ El Malick yorut ab caméra ña yor lañ lañ mën a génne lañ génne ginnaaw lu jàmp la ñu koy génne nañ ko génne li am solo nag mooy nit ki la moom la wala du moom. léegi nag ñoom ñoo ko génne waa APR ñoo ko jël ñoom it di partage ndax amuñu woon jotu xool ay sew sew ko woon mais comme que waa Pastef teel nañoo génne ñoom it ñu loolu di ko partagé. waaye nag euh, am na si ñoo xam ne génn bi ñu génne mooy bañ falee Basiru sa ngoon ngoon nga laa génn tàmbale ko wax dëgg. man xaaruma ba tey ngeen di ko doog wax dëgg na am na ñoo xam ne pare nañ pour nañ ñoo xamante pare nañ pour tàmbale dal seeni xeer ndax am na ñoo xam ne moom lañ opté moom dal ci kaw nit loolu mooy mooy seen mooy seen bëgg-bëgg ñooñu nag il faut ñu tàmbali tey dóor bu ko defee bu ñu waxee ñun man ba may ànd ak moom laa tàmbali woon ndax xamoon naa ni lii nii lay demee mm-hmm. mais loolu lépp it amut solo li am solo daal mooy discours am mm-hmm. li mu wax na ko jëfe pour mu njariñu Sénégal. léegi ñu mm. kilifa diine yi ci discours bi. Mm. te kilifa diine yi nekk benn ponk boo xam ne ci suñu réew. waaw nekk benn ponk ci suñu réew waaw xam nga xam nga Sénégal moom ak ni muy doxee moom mi bañ ba euh, tey jii nee nañu wutal wut nañ kuréel goo xamante ni ñoom ñooy saytu mbiru kilifa yi diine yi am na si seeni point ñoom ñooy seeti yi diine yi bu dara xewee ñoom ñoo fay dem li fa war a dem moo fay dem kenn ku nekk lim mu yelloon ñoo ko jox ba man mii doon kilifa diine sax sama màggal gi may waajal incha allahu rabbi man Assane Mesere la fay ñëw ñoom danañ ko programme ni asan kat lii lañ ko war a yët man kilifa diine la sama màggal léegi tey réew mi ni mu demee woon ak ni mu mettee woon léegi tax moo taxoon dugguma si mais ginnaaw am nañ président bu bees si carte nag suñu borom danañ taxawal kuréel màggal gu màggal gu mag incha allah rabbi sama maam di di ko ko sant yàlla mais loolu lépp metti waayu réew mi lu moo taxoon ma arrêté woon léegi bu juddi jotee nga ñëw ci kàddu mag ñi comme sama incha allah rabbi kàddu mag mii di ñëw dinaa waxtaan ak incha allah euh, Adja euh, wax na ci panier de la ménagère yéen jigéen ñi moom xam nañ ne li ci bari foofu ngeen di xaar euh, kilifa gi. Mm-hmm. ndax discours bi convaincre na la dans l'ensemble. waaw waaw waaw discours bi moom convaincre na ma wax dëgg yàlla parce que booy xool dafa xool moo yi nga xamante ni mooy gangrène société bi yëpp mu ni dina ci indi solution. Mm-hmm. benn ñaar nee na moom ci biir discours bi muy wax olof bi nee na fu ma taxaw rek ñu ne jomaay dëkk bi dafa metti lekk bi. Euh, dundu gi dundu gi dafa metti nee na fu mu taxaw wax nañ ko ko moo tax foog ñu mu indi ci ay ay solution li ma li ma li ma gën a kii aussi man man man ñu ci bari foogoon nañu bu ñëwee ay discours va t lay indi fayoog ñii wax ak ñii nangam ak nangam euh, loolu lii aussi mu wane dafa dal xel parce que man man jomaay bi ma gis mu wax mu wax français wax olof euh, du jomaay boo xamante ni dafa accorder importance ci apparence am comme ñi ko yenn sénégalais defee moom pour moom li mu doon xeexal Sénégal ba tey yàlla may ko ko man pour man loolu moom ci la focus seen focus bi ñuy utiliser pour man loolu la focus donc sénégalais yi nañ bàyyi des jugements d'apparence ak yooyu man j'ai toujours été contre parce que aussi nit ki dàq nga ko yëree le le plus grands philosophes ñi wax ni ñooy borom xam-xam yi boo leen xoolee dañuy dañuy dañuy bàyyi seen bopp noonu mais xam nga lan la ci nit ña soxla li nga xamante ni moo nekk ca boppam te li nekk ci biir walla euh, coono gi biir bi sénégalais yi di dund moom moo ci gën a conscient que ni sénégalais yi loolu la ñuy dund mu apporter leen solution. ñu jàppale ko ci li kiy wax aussi ñu may ko état de grâce parce que nag même bu ne eh, les priorités yi ñu ngi fi urgence yi ñu ngi fi et tout nit ki aussi balaa muy toog bay imprégné wu ci yenn dossiers yeeg yooyu à part moom yi mu jotoon a xam wax dëgg yàlla sénégalais mun mën nañ ko may grâce. am na solo mm, alaaji mhm. déglu nga discours bi. Mhm. daf ci yoo xam ne nag gars yi dañu ko génne bi mu nee réconciliation. ndax yow da ngay xaar mu def gouvernement d'union nationale wala da nga jàpp ne dafa war a ak ñi mu àndal. non ni mu ko waxee sax euh, dëkkul di dafay def ngir rek ngi mu àndal. Mhm. parce que man naa ni gouvernement bi dina nekk gouvernement boo xam ni euh, ñu bari di leen ci gis parce que nguur la goo xamante ni ñoom li ñu wax lu leer la euh, compétence fu mu mën a nekk nga dib sénégalais pare nañ pour liggéeyandoog yow maanaam ñi sës rëkk sax bu ñu amut compétence. bu yaboo ñu xam ni dañuy bàyyi galaas parce que nekkuñ ni sës nga ci yëf yi Sonko wax na ko fële ne sës naa ci yëf yi euh, sama wàll mbir mi du ay wàll mhm. day fekk nga yelloo yëf yi mhm. boo seetee Jomaay aussi tamit bi mu ñëwee président Jomaay bi mu ñëwee ci loolu la la wax mhm. mu nekk wax joo xamante ne bii wax ju am solo la euh, gis nga man ñi ma gis président booy bu ñu ko amoon léegi tey ñu wut yat <laughs> ne ko abal ñu. Hmm, lu tax waaw mais parce que. la plupart nit ñi mbir da ngay la plupart liberté wax noonu sànq loolu mooy kii gis nga. ñi développé àddina bi sax talu ñu woon seen bopp. Hmm, dëgg la xool Bill Gates. waaw xoolal Bill seen bopp quoi. Hmm. maanaam newuñu ci seen bopp dañu nekk ci ay mbir yoo xamante ni bi yow tey ci nga ne. yow mi ne ci sa bopp ci yooyu nga ne di kuri mais ñoom ñi ngi nekk ngir développer yëf yi maanaam il faut nga nekk ñun sunu classe yi rek pour mën fee nekk di topp nit ki ci ay apparence am ak affaire yooyu maanaam nit ki boo ñëwee ngir war koo déglu waaye dégluwoo ko waaye di xool maan lu mu sol ban yére la sol loolu la Souleymane Faye doon wax naan nit ki boo ko wanee yàlla daal ya lay njëkk xool ëllëg yooyu mu yéemu ci yàlla nga xool yan daal la sol ay kiiw ak affaire yooyu comprendre nga loolu la Souleymane Faye doon expliquer c'est li ëpp solo ci àddina mhm. mooy nga déglu nit ki. Mhm. parce que gis nga Moodu. Mhm. gars yi yàgg nañoo wax sunu kilifa diine yi sunu kilifa diine yi sunu kilifa diine yi. Mhm. di ko def discours chaque jour. mais man dama jàpp ni li ñuy kilifa diine yi yelloo sax defuñu ko. defaluñ leen ko. parce que saa yu bés yu mel nii jotee. peut-être que ni am na ci kër yoo xam ne amuñu problème. mais am na kër yoo xamante ni bi Modou yàgg ngeen a dem di gis këru diine yoo xam ni am nañ ay jafe-jafe. yu mag sax yu bari yaa ngi dégg mm-hmm. maanaam bu ñuy taxawu tamit ay gëlu këru diine dangay gis ni am na këru diine yoo xam ne bi chaque jour ñu ŋàññu nguur yi. dëgg la dëgg la. bon kilifa diine ci sénégalais yi lañ bokk. Mm-hmm. sànq yaa ngi may nettali benn waay bu ci wax lu xorom. <laughs> daal di ne président Macky Sall bi mu tollee fii. dafa ne woon ay citoyen simple lañ. ordinaire waaw kii nag comme ko waxu ci. na da xel daal <laughs> xam nga loolu. Hmm. wax la ñoo xamante ni bi wax ju hmm. am solo la te defe naa ne hmm. kilifa diine boo ci wax ne ko doo sénégalais. mu wutaw yet donc te wax na ak sénégalais yi. kon donc kilifa diine yi ñu ngi ci biir. ndax nag dafa waroon a détaillé wala deta kii yooyu leneen la maanaam boo seetee bi mu ñëwee dafa wax ak sénégalais yi. loolu nag nekk loo xamante ni bii lu am solo la. Euh, état de grace boobu moom sénégalais ci seen jëm bopp may nañ ko ko parce que xam nga lu tax mu fi fekk ko may parce que réew mi Moodu bu ñu la joxoon ab oto boo xamante ni bi ngay ñëw fekk nga mu lakk juin kilaas fekk nga mu def lii comprendre nga euh, kii ba nu mu tuddati kërëwe euh, ñu naan de clémaillère ba am problème yooyu yooyu boo ñëwee faaw nga ñu ne la faaw nga dem Tamba di nga ne oto bi il faut ma jéem koo defar xool li nga xamante ne bi moo ci jubali te mm. ñun ñëpp yëg nañ ni réew mi moom gaañu gaañu yi bari na. Mhm. loolu mooy fissure yi nga xam ne xaw ma moom la Omar doon wax ak yooyu. Mhm. nga xamante ni bi am na ci sunu réew mi. Mhm. naka la ñuy def pour jéem a réconcilier nit ñi ñu waxtaan. waxtaan googu jural ñu li nga xamante ni bi mooy programme bii nga xam ni moom la yore. ngir nuñ ko mën a tegee ba sénégalais bu ne gis ci boppam. li mu njëkk li mu waxaat encore muy lu am solo muy jub. ak jubal. corruption xeex ger waaw kon bokk réew mi daal nañ xam ni. jàpp euh, à ku de maintenant boo ko bokkatoo ci kuy làqar ci booya boo génn dem ci yeneen réewu làqar ci kat yi te xam ni réew mi réewu liggéey la. topp nee na la ko may ci lo loyer bi. <laughs> non non non moom loyer mooy na topp moom loyer mooy problème un mois bari na. topp nee na li muy fay dégg nañu dimbali topp li am solo Modou. Uh-huh. man jàpp naa ni. Euh, bu sénégalais bu nekk doonee am jomaay jàpp ni projet bi yow boo ci jàpp du dem réew mi dina dem waaye nag bu ñëpp taxawee di seetaan naan tegale say tànk nangu woo def lenn loo xamante ni bii mooy mën a yóbbu réew mi ca kanam ba noppi ngay yaakaar réew mi dox yow doxaloo ko ba réew mi di dox kon ku nekk dafa war a jàpp ni mbiri mbiri boppam la ngir réew mi dox am na solo kon aja li ñu joxoon ci waxtu jeex na li ñu mën a tënk daal mooy Euh, président Diomaye def na discours ba pare te werante amut débat amut. ndax comme ni ko Alaaji rappelé léegi jamono bi Macky Sall toll fii en 2012 bi ñu xëyee euh, marabu yi citoyen ordinaire lañu. xëy na loolu moo nekkoon li li ko topp ci daanaka ci ci ci magistère ci magistère am yëpp. léegi nag daal euh, wax na ak askan wi ñu ngi xaar prestation de serment bi ñu ngi wax ne dinañ ko def mardi le 2. ndax le 2 war a def passation de service ak euh, président Macky Sall ñu ne le 3 annoncé nañ dissolution des institutions li dalee HCCT ak euh, conseil économique social et environnemental bu ñu noppee nag dina former gouvernement ñu ngi xaar nag suite bi waaye li wërtawoo daal mooy mbir yi war naa gën a gaaw ah, comme ça waaw loolu lañ annoncé loolu lañ annoncé mais waaw nañ annoncé nañ ko léegi nag réconciliation yi dina tàmbali comme ça mu andi andi may ñu nga naan ñu ay militant andi dañuy tëj waaw loolu daal la Sénégalais nañ jàpp loolu xibaar yi mu ngi di dem de prison waaw prison nga génn tombé corps ñu fal le président comment tu peux avoir une bonne mine stress bi ko dund yëpp ak mais quand même moom wane na na boo xoolee ma jeexal boo xoolee moom Ousmane Sonko dañoo génn prison demuñu seen kër dañoo dem directement campagne xëy na ñoom seen volonté loolu la waaw xëy na ñoom seen priorité sénégalais yi la kon daal ñu ngi leen di xaar na leen comme li Adja wax sànq nañ leen may état de grâce xam ne am nañu volonté pour liggéey incha allah rabbi ñëpp jàpp ci gis naa benn élan de solidarité bu am ñuy wax waxi set setal ak yooyu noonu je pense que réew benn njiit du ko defar askan wi ñoo koy defar bu ci ñëpp jàppee insha allah mën na réussir mission waaw ayca ñu ngi lay jaajëfal El Hadj Modou Diouf di jaajëfal yéen ñeen mbokkaloon na plateau bi ci première partie bi euh, ci télé bi dañ leen di tàggu ngeen topp ñu solution TV ñu yóbbu fa nepad euh, musical ay Souka seetal yàlla maa ngi lay nuyu Souka Mbaye Samba maa ngi lay ziar. Euh, maa ngi lay fay Adja nuyu mbokku téléspectateurs yi nga xam ne rek ñu ngi seetaan solution TV voilà. wax dëgg yàlla non. nuyoo mais solution damay damay juum ni wal fajiri te du ah, wal fajiri solution kii bi la dañuy dangay toj nuyoo bi. na am du ma ko def nag léegi àdduna bi lépp a changé. di sargal ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi solution bu baax de. solution kii xanaa man moom maa yeey nag solution kii bi moom mooy <laughs> bawal bawal ah <laughs> nuyu naa leen ñëpp. ayca waaw Jomay euh, di ko wax nag yàlla na yéen président Jomay. doo ma bàyyi rek ma wax li ma kii rek. di ko nuyu moom Jomay. Euh, démb démb hmm. defuñu émission. émission amul woon. am na dañ koo dagg dagg affaire yi. Euh, monsieur son excellence monsieur président Diomaye Diakhar Faye di ko wax yàlla na yoon bi oyof ci kaw amiin vraiment. Hmm. ayca loo indi. desere waaw jërëjëf ñu ngi lay siyaarewaat bu baax a baax. man nag ni ma waxee rek sony bu jóob maa ngi koy nuyu euh, di nuyu maa jigéen Diop sony bu nag moo ma moo ma yabalaat tey jii waaye moom moo ah, duggoon moo demoon marché daa génn waaw maa demoon marché léegi nag sony bu daal xam nga victime di net. <laughs> nga nekk fi daan bu daal sony bu daal doo bay asana bu moo demoon marché. waaw xam nga victime di net. victime di net ni muy doxee. tey jii bu xëyee gis internet bi ñëpp naa ma Abdou Aziz baax ñu koy windeel day indi ma Abdou Aziz Dabakh teg xam nga loolu jàll na bu yàgg bu tey jii buñ gisee nit ñi di windeel Assane day indi Assane teg tey jii nag daa xëy si internet bi gis ñuy windeel Mouhamadou Mohamed Ndiaye ba sa RFM ak Basirou Diomaye fay booba léegi nag ñoom ñaar ñu waxante joxante ay kàddu daal ba ak ñàkk kersa am ca daal xam naa ni topp dañuy tegal eh, lii nga xamante ni mooy élément bi ñu dem ñëw eh, Basirou Mhm. donc bi ñu tegee xalaat bi Ousmane Sonko génn wax ñëpp dégg mu ne moom bokkul euh, wax jooju est-ce que est-ce que yaakaaroon ne day tax nit ñi dëkkal ko am fuñ ko dëkkal ci ne doxul ci jàmm nitu fitna la tax amul woon weneen doxalin wu cest à wu gënu na woyof même bu fekkente ne du ko def sax. gis loolu nag mooy yëpp naa fekk yu ñu moytu naka ngay def waxee loo xamante ne da lay wóor ne doo ko def Mamadou mënoo wax loolu mënuñu wax ne day wax lii même bu fekkee lu ko def. loolu mooy yëfu naafeq ñu war a bàyyi Sénégal nag justement. Basirou dafa mel ne déggoo li ma la wax de. non non non dégg ko bu baax. non ma. même néew ma bu mu wax lu mu dul def wala bu dama ne. waxin bi mu waxee ak ni mu ko waxee ndax du tax nit ñi dëkkal ko fenn fi. déclaration bi moo ma tax di wax. mais junj junj ma fi non attends attends attends. junj ma fi bul ma wax loolu ma waxul. non non ne ndax ci rafetul woon mu wax leneen même bu fekkee ne du ko def loolu nga wax. allez-y. même bu fekkee ne du ko def loolu nag moom la ñu lay wax ne. nit bu dee wax lu mu narut def waxu naa fekk la te duñ bokkuñu ci. loolu kay c'est un principe maintenant. ñun duñu wax lu ñu dul def. Abdou Mbow mii di wax ne suñu suñu suñu suñu suñu président dafa wax ne respecté wul kenn. Euh, nawloowul kenn te dëggal na ko tey. bu génnee si ko président Ousmane ko waxi ci bu muy bu moom ci boppam. man ma bàyyi politique gis nga njiit du toog ci rajo di wax loo xamante ne du dëgg loolu dañ ko lu ñu war a moytu la xam nga yaa ngi wax xam nga yaa ngi wax yaa ngi yaa ngi wax waxi naa féq di attaqué nit ki di ko wax waxi lu dëgg te lii mooy ak réewante quand même je suis désolé mais Bassirou Diomaye Faye lii du yëfu nit maa ngi jéggalu mbaw euh, Mbow Abdou Mbow voilà ñu bàyyi la nga tëj waxtaan bi mm-hmm. mi ngi noonu kon euh, yaakaar naa ne dégg ñoo ko déggandoo muy loo xamante ni nag lu jàll la mais victime di net ni muy waaw jàll na tuuti victime di net ni muy doxee mooy lu nit ñi windeel lekk ñu ñu ñëw indiwaat ko waxtaan waxtaan si lii nag Sa Ndiogou mi waxoon na si keneen ak keneen waxoon na si mais Sénégal yi ñoo ko indiwaat lu tax ñu indiwaat ko ndax suñ président bii ñu teg dafa naqari deret ndax suñ président bii ñu teg mën naa def communication ndax Mouhamadou Mahamed Ndiaye ni mu organiser ni la ndax ndax ndax ajarat sukaano dégg élément nu mu tudd Assane nuyu ah. naa la lu bare bari Assane. Hmm. Euh, pour man Mamadou Mouhamed Ndiaye euh, da doon def da def émission. Hmm. émission bi à partir de une heure la kii la 13h. après 13h mhm. la. dafay jël ñaari invité day jël kii ak kii. dafa mhm. boole Jomay ak ki nga président Jomay la boole woon ak ki nga xam ne moom moo di Abdou Mbow bu Thiès ñoom ñaar ñu waxtaane ñu waxtaan kii wax bàyyi kii wax daal moom it Jomay wax mu tontu ko. Mhm. ku ne wax mu tontu. donc lii vaar la liggéeyam la doon def ci liggéeyam boobu xëy na ñoom ñaar dañoo déggoowul woon ci wax ndax li ko Mamadou Mouhamed Ndiaye wax. ak li ko jomay tontu ku ne danga nga wax rek jàll après mu coupé ko. Euh, nit man pour man tamit aussi euh, nit booy liggéey ci rajo am na foo xam ne boo ci tolloo ci euh, émission wala ngay def benn émission boo xam ne bu ñu dee wax loo xam ne bu la neexulee waroo ko mën a coupé danga koy déglu mais dañu ko maa ngi jégalu pare que foofu am na ci am na ci droit moom Mamadou Mouhamed Ndiaye mais lu yàgg loo xam ni la. yàgg nañu indi ko vaar pour wax ko di ko won ki nga xam ne moom moo di président Diomaye Faye man damaa yaakaar ni président bi ñu am nii du nit koo xam ni du nit kuy fayu la xam nga ndax lan ñaar laa ci teg benn bi dama dégg ki nga xam ne rek moom moo di président Ousmane Sonko ñu ngi koy ñu ngi koy nuyu mu wax wax boo xam ne dafa am solo trop xam nga nit doo ko xam mais après da ngay déglu ay waxam euh, man dama dafa ma jaral damaa toog ma déglu seeni wax ma dégg ko mu ni euh, dafa am benn wax boo xam ne dafa wax ni que euh, dañu ko jomaay bu ñu jëlee réew mi nii daal nan fayu ci lii jomaay daal ni ko déedéet xam nga nit ku wax loolu. kon doo nit koo xam da ngay fayu bu ñu yaakaaree ni euh, kàddu yi mu wax moom ma Mamadou Mouhamed Ndiaye ak moom waxtaan dafay yaakaar ni ki nga xam ne dafa toog ci réew mi dafay fayu ndax nañ seen bopp ndax ki ma gis nii du nit koo xam dafay fayu te loo xam ne liggéeyam la defoon na ko point jeex na te nan nan jàll ci leneen moo gën ñuy indi leen loo xam ne dafa yàgg hmm. am na solo Omar bun Xattaab Gueye li nga xamante ni jàll na élément bi euh, si Mouhamed kii te yi di ko windeelaat gars yi lan lañ ñuy wan dañ ñuy wan ni Basiiru dafa naqar direct wala dañ ñuy wan ni Basiiru dafa direct wala wala lan moo tax nit ñi di ko windeelaat ci internet bi si jamono ji nii Basiiru waaj dugg pale waaw da ngay xool fi question bi jógee Mohamed dafa posé question ba pare commenté question bi dafa da ko posé question ba pare hmm. commenté ko waaw ci commentaire bi mooy lii la Ousmane ko war a def te xam naa ne sax du ko def hmm. loolu mooy lan jomaay na ko loolu lu mu tudd maanaam du respect mu ko doon commentaire noonu mais du respect aussi ni mu ko daggee. Hmm. ci jamono boobu. jomaay nag wan ko fulla ak fayda gu mat sëkk xam na Sénégal dañuy jaawale. ku yaru ak ku sedd ak ku tey. Hmm. des nga gis ku tey ku sedd fekk li mu toogaale mooy fulla ak fayda gu mat sëkk bu jotee dina ko wane. Hmm. te jomaay gis naa ko ci bi ma koy tontu parce que Mouhamed du ñàkk ni moom bi muy woo jomaay nit ki mu jàppoon ni moom lay avant mu koy woo ak ki mu doon waxal maanaam dafa xawoon réere léegi nag fulla ji ko jomaay wan moo ko bett te ku fekk ci Abdou Mbow la doon waxal Benno Bokk Yaakaar jomaay Pastef foofu day laaj équilibre parce que ni mu traité jomaay traité wut ko Abdou Mbow bu doon di tey mook jomaay ñoo seq émission ñoom ñaar dong peut-être que moom mun na am benn attitude jomaay muñ ko mais ñaar la kee far ci nguur kii far ci opposition jamono boobu dëkk bi tàng lool te ñu xool diggante Futurs Médias ak Pastef ci jamono boobu nga woo secretaire général Pastef traité ko noonu mais day gis boppam mais aussi day wax wax ji fa mu ko war a waxee parce que nag ko Mohamed defee ci wax mais foofu la ko tontoo ci wax parce que bu ko bàyyi woon mu jàll yabel day judd parce que ci biir question bi Mohamed nangu ko déglu benn jomaay xam naa ne bi ñu koy woo ci émission bi sàkkul ci ñoom ñu woo ko ñoom ñoo ko woo kon seen invité la l'invité est waa ñoom ñoo ko woo téléphone ne na ko respecté même bu dee lu mu leen wax arrangé wu leen xam ne des fois ñun ñëpp tey jii dañ lay woo téléphone bëgg liñ bëgg a dégg ñun nga koy wax boo waxee lu ñu arrangé wul ñu bëgg di la kii mais na déglu jomaay même bu ko li jomaay waxul pour man loolu moo waroon doon posture Mouhamed mooy déglu mais ba pare jox du mbaw parce que émission boobu noonu lay doxee. da ngay déglu waa mu wax ba mu jeex nga jox keneen ki pour man ci côté boobu rek la waroon taxaw mais wax li mu wax ci Ousmane Sonko ba pare commenté ko jomaay nag dindi ko parce que def ko nit koo xam ne li mu nar di ko def xam ne foofu Ousmane Sonko la Mouhamed li mu nar di ko def mun ko da bëgg wax naa fex la wax jooju dindi ko parce que des fois manipuler opinion dafa xaw yomb ci wax jomaay dafa dégg wax moo tax mu tontoo ko ci jamono jooju léegi nag ni ma ciy tëjee mooy. maanaam ku mu ne ci ñun bu nu xeeb kenn bu nu tuuteel kenn bu nu bañ kenn bu nu leble kenn bu nu fay bor ci kenn ba mu koy def sóoru woon ni fi lay egg pour man ñi génne video bi loolu lañ ci jublu mooy ki nga doon waxal mooy président wu tey kon tey mi asana ku mën ci doon koo gis jox ko cëram koo gis respecté ko parce que ëllëg li yàlla di dogal ci nit kooku tey jii jomaay mooy dogal ci kaw Mouhamed mais heureusement jomaay man jot naa toog ak moom Diomaye du nit ko violent te du nit kuy defante loolu moom xam naa ni li fàtte na ko sax nit ñi koy fàttali mais fàttali na ko. mi ngi noonu li ci kanam rewati bët. lu tax mu tànn Diomaye bàyyi Pastef ñu bari. Hmm. juumul Diomaye du nekk ci dëkk bi xeex xuloo maa la wax mi ngi noonu li si kanam rewati bët koo xamante ni départ gud moom mënuñu wax ni mën naa daw a daw. Euh, ajaratu noo dégg élément <laughs> xam nga xam nga des fois sa liggéey ci ngay am ay erreur rek yooyu parce que wax moom yombul. dégg-dégg gën ko metti Mamadou Mouhamed Ndiaye dafa wax rek jomaay fi mu déggee la tontoo loolu rek mooy wax ji man nag jaaxal na ma trop li tax ñu indiwaat ko naa peut-être dañ koy fàtte ni ki nga doon waxal tey moom la yàlla teg ci bopp réew mi mais sénégalais yi moom duñu bàyyi dara mu sedd hmm. am na solo alaaji Sanjogu élément bi comme ñu ko waxee rek victime di net moom bu son bu xëyee day xool internet bi rek lu ñu gën a windeel mu ñëw teg ko ñu waxtaanee ko xam naa ni incha allah sax euh, ministre de l' intérieur ba woon bu ko gaa yi windalee fii ak nañ ko indi <laughs> borom café gi. <laughs> Antoine la bëgg a mooy fàttali nit ñi Antoine fi toll nii loolu <laughs> naan ministre de l' intérieur boobu mën nañ koo indiwaat. xam naa fii ak bu fekkee gaa yi windeel nañ ko rek. am na. waaw. Mouhamadou Mohamed Ndiaye dafa dalal du Mbow ak euh, ki nga xam ne mooy ministre prime kii président. Mm-hmm. léegi bi mu ko posé question. Mm-hmm. da ko wax si Ousmane Sonko taxawaayam. mu ne ko waaw Ousmane Sonko comme ça bi muy communiqué bi muy bi muy wax. mënutoon a wax rek wax ju rafet même bu fekkee du ko def moo wax ju rafet joo xam ne ko mën a dégg. Mm-hmm. waaw lool la lool la loolu la expliqué. li mu expliqué euh, dafa ne même boo ko du def nga jéem a fexe jàllale mbir mi. loolu la Diomaye président Diomaye wax ko ne ko loolu mbirum naafeq la di wax loo du def maanaam vidéo bi dellusiwaatam tamit baax na waaw parce que li tax mu baax euh, nit ñu bari dañu war a xam kan mooy président Diomaye mooy kan parce que lii bi mu koy wax ay ngëm-ngëmam la wax parce que maanaam wax na ni nit ki warta wax lu mu du def maanaam booy wax dara dafa war a fekk nga def ko xam nga nit dina wax dara du ko def mais naroon na ko defe naa ne sëñ Cheikh Anta Gaynde Fatma moo ko doon wax ñu ko wax ne ko loo wax def ko mu ne loolu yàllaa ko man waaye lu ma wax nar naa ko defe naa ni foofu la jomaay di waxee gars yi dañ lay wax luñ narut ki lay wax lu mu narut maanaam non seulement mi ngi lay fen mais mi ngi fen boppam parce que nekkul ni daf la nax rek parce que yow boo ko gëmee boo lëgee doo ko gëmati loolu moo dal suñu politiciens yi ñoom nag biñ ñëwee dañu indi beneen façon boo xamante ni bii tamit li ñu am loola leen ko may muy di wax nit ñi loo xamante ni lu ñuy def la loolu moo tax waa ji nag ci boppam Omar wax na sànq ne xam nga Abdou Mbow la invité woon ak benn ak beneen côté bi maanaam nit ñi dañ leen di gam-gamle ci yére bi ñu sol parce que Abdou Mbow bu ko waxoon lii du ko wax moo bi maanaam kii tey dañ lay wan rek sa métier boo ci nekkee ak nu mën di demee ak loo mën a sax ànd ak keneen boole ci yar parce que moo bi mu wax nii tey dina ko déranger parce que le fait que boo indiwaat ko xam naa ne bëggatut léegi moo bi bu wax ji di jàll waaye li ngeen wax tamit moom moo ci ne su gaa expliqué na ko sànq euh, Bétik Omar yéen ñëpp ku ci nekk expliqué ngeen wane ni jomaay moo nekkut koo xamante ni kuy fayantoo ci yii la peut-être que ni sax dépassé na ko non peut sax dépassé de peut sax fàtte na ko noonu non parce que xam nga président Ousmane Sonko daf ñu wax ne ñu président Diomaye Faye mii de dama toog bés mu ne moom ak biram Souleye mu ne ko ñii de bés bu ñu jotee nguur gi danañ lool nee na mu ne ko président tegal loolu ci suuf nee na mu seet si waat ko mu ñu dajee ju ci kaso bi quoi ñu gisante waat ñu nekkee ci kaso bi nee na mu koy testé waat di xool ndax la ci woon ca moom ma nga ca moom ba tey mu waxaat ko nee na mu dellu waxaat ko lam ko waxoon bés ca ba mu nekkee ci liberté ak bi mu nekkee ci xat-xat wax ji soppeekuwut pareen saa yi nit dina ñëw ne la Assane muñal maanaam waa ji dafa ñëw di interviewé ndaw si benn kii sketch théâtre bu kii la nga gis euh, di interviewé ndaw si euh, di interviewé waa ji ne ko ndax mës ngaa tëdd ak benn xale bu jigéen mun ndaw si daa waa ji daal di wax xale bu jigéen bi mu tëddal ndekete jabaru waa ji koy laaj la ne ko ne ko kooku xale boobu man ak moom séq nañ lu ne waaj kii di jooy waaj na ko xaalis nañ ñu fay ki mu àndal na ko xaalis nañ ñu fay bul jooy lii du dara xoolal xaalis bi xalaatal xaalis mu demaat waa ji waxaat wax yu kii mu xaalis nañ nag biñ ñaatee ñu ne ko mu ne ko léegi est-ce que amaatul keneen koo xam ni mës ngaa séq ak moom dara mu waxaat jabaru waa ji doon wax muñal <laughs> korpaña naaw <laughs> pour te dire que ni nit par yenn saa yi di nga muñ loo nit loo xam ne yow munoo koo muñ <laughs> ah. waaye jomaay bi mu nekk bi Ousmane ko nekkee ci xat-xat yi muñ loo na ko waaye moom it bi mu nekkee ci xat-xat yi mm. biñ ñëwaatee même chose mm. muñ loo na ko ne ko lii mooy li nga xam ne mooy dëgg donc loolu mooy li nga xamante ni bi nag Assane mm. mooy li am solo moo tax gis nga àddina boo ci nekkee nit da koy respecté en tant que doomu aadama mais pas liñ ko solal moom laa la doon wax ne la maam Cheikh Rahane Fall bi mu solee yére yi ba mu demee sol yére sagar ñëw ci kër gi ñu am nuñ ko kiwee beneen yoon ba mu ñëw sol yére yu rafet mbasin ñu koy teral mu ne mu jël lañ koy teralee def ci yére yi ne leen ah. yére yi ngeen ne leen yére yi ngeen di teral mbaaye du jëmm ji jëmm mooy li am solo hmm. moo tax booy respecté nit da koy respecté en tant que doomu aadama hmm. te gëm naa ni ñoom ñi bon gëm naa ni euh, respecté ni ñaan tànk doomu aadama booy nag bon paren saa ñu fàttali loo xamante ni tey jii nit ñi ni ngay toogee jékki-jékki asat ñu fàttali sa lu am solo mm-hmm. mu neex la lool waaw pourtant booy yi nekkuñ ci benn côté rek pourtant boo waxoon lu ñaawit mm-hmm. noonu lañ la koy indilaatee kon boog paren saa yi di fàttali nit ñi dina jubbanti yeneen nit mm-hmm. peut-être lii rek mën nañ ci jàngale keneen dina def attention ci ne ah man de naa doxalee ni naa doxalee nii. Hmm. parce que erreur u ñenn ñi mën naa jubbanti ñeen ñi. Hmm. donc par yenn saa erreur nit ñi saa yoo xëyee rek war ngay mën a jàng. Hmm. dal di xam ni kii def na njuumte. lii mu def de man duma ko def. loolu tamit aussi njàngale mi ngi ci côté boobu. am na solo euh, Omar bun Xataab Alaaji Sanjoogu am na solo ajaratu biti suka yàlla na bu seen yaakaar tas xam naa ne bu yaakaar tasee moom yàlla nañ si yàlla musal waaw. waaw ndax daal wax dëgg yàlla koo si wax rek ñu ni yii waa ji kay nangam yii waa ji kay nangam waaw ah, kon nag yàlla nañu nit ñi danañ liggéey bu soobee yàlla Sénégal dañoo yàgg caaxaan rek mais hmm. incha allah liggéey kii du si am relexo patronage am ko tudde làmb de Bassirou Diomaye Faye ah, non làmb sport la bu nekk ci dëkk bi dafa war a dox mais peut-être loolu laa bëgg bu ñu nekk luñu éliminé relexo ak làmb làmb mën na mën na dox ci beneen forme soirée bi Ah? c'est le haut patronage. c'est le haut patronage waaw gis nga Assane monsieur dañ koy tudde lamb Sonko ko tudde drapeau nit boo ko waxee rek day feeñ waaw nit bu sincère hmm. lu nekk ci xolam rek bu ko waxee dafay feeñ waaw Diomaye de moom wax dëgg yàlla ay discours am yi jàll yëpp moom sincère ne mais nag ginnaaw gars yi ne day am ñu ñu ko dara ñuy wax ak moom moom nañ xaarandi rek ñu ngi lay jaajëfal nit la ko am yar lu a wëndeel mi mi loolu politiciens yi bëgg nguur nga koy def hmm. ñi bëgg nguur xam nga parensaay gis nga bu ñu lay jay ci àddina ak di la roof reen yi ngay jayeexu hmm. loolu daan ne ci yow mais am na yoo xamante ni bii boo ko bu nekkut sa bëgg-bëgg mënuñu la ci xirtal saa dem ci tiktok bi maa ngi gis ay grand benn grand naan heureusement am nañ président boo xam ne am na yaay ak papa bu nu tooñee ca papam lañ jëm <laughs> dégg naa ko waaw dégg naa booy tooñee ca papam lañ li nga indi am na solo ñu jëli ne part musicale ñi bàyyi sukkaar dalal ganam. Euh, jërëjëf ajaratu euh, tey nag euh, ñu ngi fi am ki nga xam ne rek moom moo di maître El Hadj Diouf ñu ngi lay nuyu maître El maa lay fay di la nuyu di nuyu Sénégal <laughs> bu ko deful bii baax nañ ko maa ngi ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp jërëjëf. lan moo tax ba nga croiser la tey say bras nii nii mel ni xale bu yar. Eh, wala wala waaw mais dina nga takk montre bu rafet. dina ko gémmiñ mooy wax loolu loxo waxut. mais Me El Hadji Diouf. sa jubilé bi nga doon jubilé moom bër bërki dem moom moom lan la woon jubilé da nga defoon Amadou Ba moo gagné. non non. Euh, <laughs> Sénégal. baran laay <laughs> dem leen rek. dem leen rek tere mu të bàyyi mu gis ndax la mag ñi topp gone yi gone yi indi leen kii jomaay jomaay président jomaay <laughs> jomaay fay yéen a ko fal du yéen a ko fal yéen a fal jomaay yéen a ko fal ko fal yow bi nga voté ba pare yow bi nga voté ba pare dañ la gis te ndeysaan ñu ngi la gis sax sa côté sa rakk ju naan Cheikh Fall nga ne Ousmane Sonko du Diomaye Diomaye du Ousmane parce que kii Joolaa la kii séeréer la. <laughs> séeréer ak Joolaa ñu mel ni jël diwtiir ak cere diwtiir ak ah, ñaar ay cousin ay cousin la. ah diwtiir ak séeréer. waaw kii diwtiir kii cere. <laughs> nga ne Diomaye mën nga ne leen bàyyi leen ku mën loolu war nga koo wax. bi paa nag président président Diomaye ne fay fay bi dam penn waa gaan dugg dugg waa gaan xaalis waa gaan yow sa kal la sax Diouf nga sant moom mu sant fay. <laughs> dugg dugg waa gaan bu leen neexee looy neex def leen lu leen neex def leen ko yéen a ko fal man je suis là à sama yoon new ci <laughs> sama yoon nekku ci. mais doo ci ànd. ah yéen ko fal. damay mu nekk ci oto limousine bi rek motaar yi dal ko daay daa mu war a jëm nag fi nga xam ne moom moo di ñaga ñaaw damay buntu pale ñu ma taxan dugg ci limousine bi motaar yi dal ko fii de fii de ak ñi ko jiitu ñi ci ginnaaw yee président Diomaye loolu noo ko gisee nan nga ci wax eh, formation ka fi seen projet bi def nañ ci capital bi njagañaa lañ koy yow capital Sénégal njagañaa day caa programme bi yor naa ko de gis naa li ci ne am na xam yu bari dañ ko nëbb. comme lan lu nëbb. yéen jël terroriste yi jox leen réew mi. kan daaj ngeen jox réew waa daaj daaj war na yàlla waa reye leen xam nga fi nii mën ngeen a reye parce que xamu leen mag day tëdd gis lu sori. yow yow fi ne yow lan nga gis loo lan nga gis fi aywa. Eh, pare nga dugg si gouvernement dugguma. <laughs> mais wuy ma wuy ma dugguma ci gouvernement. avocat wuy ma dégg naa nag dégg naa nag ci bëyu bëy ñu ne. Euh, Jomay déglu ma dañuy waxtaan. xoranten dégg naa ñu ne Jomay day wut avocat. te avocat bi déglu ma rek. avocat di boo xam ne ci palais bi ci wetu Jomay la war a ne. dégg naa daal loolu moom Jomay dafa tëdd ba guddi ñu war na ko ñu woon na ko. ni ko jëlal Me El Hadji Diouf ngay wax hors antenne quand même. ñu hmm. wax ci loolu. bu la bu la Diomaye jëloon nag. te Cheikh Fall liggéey rek. merci beaucoup bu la ah, moom liggéey la. Hmm. waaw. ah boo ko toog dugg ci ko yarama. parce que liggéey moom c'est à cas professionnalisme. Hmm. xam nga ni <laughs> bañoo dara. waaw bañoo dara parce que dañuy liggéey. waaw dañuy daan suñu doole. <laughs> ah liggéey. <laughs> bu dee moom am na cas boo xam ne jaaxal na ko. moom Diomaye contacter sama cabinet. <laughs> parce que cabinet bi c'est professionnel. waaw man mën naa défendre nit. te fekk na jubóo maag moom. moom nee na yow déglu ma nekkuñu nekkuñu en direct kam dañuy waxtaan. nekkuñu en direct li mu wax nii c'est professionnel. cas professionnel la. waaw moom nee na. kon liggéey ak Diomaye. waaw ci état. waaw du ko def. mais bu dee liggéey ak Diomaye. sur le cadre de profession. waaw. maanaam mu jël ma en tant que avocat de l' état. waaw loolu bu ko defee du neex a bañ. Mm-hmm. ah ma ko mën a bañ. parce que su ma ko bañee. Ah. éthique ak déontologie day daal sama kaw. Mm. parce que dañ naan ma lii nga bañ waroo ko bañ. Ah. waaw. waaw man avocat international la. les dossiers de waaw bu ma ko joxee. bu ñu la ko joxee. man man naa mën naa continuer dossier yi. waaw moom parce que am na yu ma ci maîtriser. est-ce que Sonko dina ci ànd. Sonko mooy président wala Diomaye mooy président. mais Sonko. mais mais Sonko Sonko mooy Diomaye mooy Diomaye te Diomaye mooy Sonko. bu dee Diomaye nangu na. kon Sonko day nangu. bu dee Sonko nanguwul. Diomaye du nangu. waaye bu ñu nag kenn nangoo. waaw dama naan Sonko mooy Diomaye Diomaye mooy Sonko Sonko Diomaye mooy. yow waxul dëgg waxul dëgg. te Diomaye mooy. cere ak tiir àndul du loolu nga wax léegi. cere ak tiir. àndul nga wax danga ne cere ak tiir àndul. te joola ak séeréer àndul kon donc bu la ki nga. xam ne ça ki koy jaxase fu xelam toll. sonk mooy jomaay jomaay mooy sonk. nangu na mais jàpp nañu ne mosoo gagné moo tax mosu duñ la jël. déedéet yow lan nga yow. lan nga ci état mosoo gagné projet yow nga yow. yow mi dem bay. expliqué non dem dama la dégg nga wax ni. <laughs> waaw essence feeñ na fi pétrole feeñ na fi essence feeñ na fi pétrole feeñ na fi citron feeñ na fi. citron citron. doon animé son yi ne ko li nga xam de li nga li nga feeñ na <laughs> li nga am. citron asad barki alquran asad dañoo yem. citron feeñ na fi. sooy bu dee ko di. asad <laughs> euh, bu ne ko citron asad mu ne ko lingom la de lingom <laughs> lingom feeñ na fi. <laughs> mais xamoo woon li ma am na ci bi. déedéet waaye boobu naan la wax zircon. waaw Massa Ndiaye sa gan di leen jaajëfal yéen ñi ñu bokkaloon plateau bi balaa ñuy jàll ba régi nag tey moom suma bébé suma taw bu góor moo ay anniversaire muy Serigne Samb doom ci Rakki Diagne ak Birane Samb. nekk foofu la ca Italie yàgg yoon laa koy tuddee nag ma ngi koy souhaiter un joyeux anniversaire Serigne di la ñaanal jàmm di la ñaanal salaam nga dund ba yor yaay yor papa yor ñëpp di côté de la régie El Hadj Modou Diouf moo fa féete woon ak Abdou Top Ablaye jàlloo sëñ fàllu ak waa solution yëpp ñu ngi leen di remercier di remercier waa Walfadjri yëpp jox leen daje jeudi incha allahu rabbi suba sukaambaay daane dina ma wutu ci bile toogu ci kattanu yàlla boutique solution ñoo leen doon may seen émission Taku Show